jërëjëf euh, mbokk déglukat rajo Sud FM 98 point 5 gannaaw ba ñu leen Euh, ku nekk rek sa tur ak sa sant fu waay mënti rek di saxu déglu seen émission lu ci xam di émission si kan wi ñu ngi koy faral di duppee kon nag ñoo ngi nuyu ñëpp fu waay mënti nekk rek ci Sénégal ak ca bitim réew li ñuy déglu tamit euh, ci YouTube bi mën ngeen ko euh, déglu foofu tamit ci ñi nga xam ne daanaka seen déglu jàppandiwul ci rajo gi kon nag ñu ànd ak ñoom ak ñëpp ñi nga xam si si plateforme digitale yëpp nga xam ne ñu ngi koy diffuser kon nag ngeen war cee mën a déglu tamit en direct émission bi ak yeneen. yi nga xam daanaka moom lañ leen di jàllale fii ba tax na tey tamit dinañ ko ne di nuyu ñëpp waaye fàttewuñu tamit euh, suñu mbokk nga xam ñu ngi ci région yi ànd ak ñun ci waxtaan yi leen di indil samedi junne euh, léeg-léeg sax dañ naan émission bi askan bi la askan wee koy def ñun nag dañuy ñëw rek ànd ak ñoom gunge leen ci waxtaan yi euh, tamit organisé modéré ci yi nga xam ne moo di xeetu waxtaan yi leen di indil di ci am mbégte nag ndax ti loolee nga xam ne la ñuy yëkkati léeg-léeg buñ si jógee Euh, du ñàkk léeg-léeg euh, nguur gi wala ñi nga xam ne ñoo ŋànk dogal yi jël ceeb euh, dogal waaye ñoo ngi cay gis nag ak seetlu suuti loolee mu doon loo xam ne daanaka daal yéen ñii di bëgg ñu saafara seen i wala sax seen i mébét ñu jaaree ko ci waxtaan yi xam ne moom lañ fi indi ak ñoomee sax nga xam ne ñoo ŋànk mbir yi nañuy dogale ñuy jël ak tamit nañ ko jëmalee bëgg daal jàpp ni wala jàpp ni baax na ba léeg-léeg sax askan bi jàpp war a jooyante fii fii yooyu yëpp mu doon ay participation Euh, citoyenne yoo xam ne daanaka askan bi tamit ñoo ciy yëkkati ak sax bu ci sax léeg-léeg yenn orientation bu ci sax yenn ñi nga xam ni daanaka macha allah da gis ni seen xel daal euh, daa màcc jëm ci la ñuy waxtaanee ba ñu àddu ci àddu yu am solo euh, loolee lépp ngir njëriñu askan bi kon nag tey mbokk yi. dañu ko ne di waxtaan yi fi noonu gis nga daanaka sax boo li ñu doon waxtaanee ci njëg yi nga xam ne daanaka daal euh, daa cher lool ba tax ni dégg ngeen sax même ci conseil des ministres njiitu réew bi wax na ci ba joxe ci ay dogal euh, kon nag maître Massokhna Kane ak équipe yëpp ñu ngi leen di gërëm di sant ci taxawaay bi ak askan bi euh, ci li nga xam ne mooy daal la ñuy yëkkati bëgg ñu saafara seen i jàngoro kon weer wi buñ ko déggee mbokk yi moo di weer weerub juin weerub juin nag daanaka boo ko dégloo. bés yi ñuy euh, jagleel li jëm ci wàllu aalam bi lépp daanaka ci weeru join lañ ko tënk ñu ngi wax donc journée de l'environnement cinq juin bi moo di bis bi nga xam ne daanaka dañ si euh, taxaw sa seetlu ca la nga xam ni moom la ñuy jëriñoo lii di alam bi ak tamit la nga xam ne tamit moo ca ne euh, ci ay gàllankoor lu jëm sax ci li nga xam ne moo di ay action anthropique ak yi nga xam ne nag yeneen yoo xam ne tamit moo ngi jóge ci ay aléas yépp loolu loo xam ni maanaam nit ki li muy jë yëkkati jëmale ko ci aalam bi ak li nga xam ne daanaka sax ay phénomène la yooyu yëpp ñu koy toog di ko saytu di xool nañ ci indi ay joyanti ngir li nga xam ne rek daanaka daal mooy euh, suñu aalam bi ñu mën cee dund ci dund gu mucc ayib teewul tamit euh, journée mondiale des océans dégg nga ci li jëm ci wàllu géej gi tamit ni ñu ko war a taxawoo nga cay euh, jëriñu ci le plan économique ba li nga xam ne sax moo jëm ca lii di maanaam. mbay gi maa ngi jéglu euh, napp gi ak sax maanaam effet yi nga xam ne daanaka euh, yaakaar nañ ni buñ ko ci defee mën na indi gàllankoor ci lu jëm ci secteur d'activité boobu ndaxte nag am na yeneen yi nga xam ne liggéey ñoo ci waajal li jëm ci wàllu exploitation pétrole offshore ak yeneen yeneen ak yëpp di doon yoo xam ne incha allah bëgg nañ ko ci li nga xam ni moo di Sénégal si maanaam politique environnementale am na ngeen ko jàngatee ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu euh, la ñuy yëkkati jëmale ko daal ci as askan wi nan lañ ko war a taxawoo yooyu yëpp di yoo xam ni daanaka bëgg nañ si tamit indi ay leeral ci yenn environnementaliste yi nga xam ni bëggoon nañu waxtaan ak ñoom ci loolu ñu di ci ab leeral euh, ci li nga xam ni moo jëm ci euh, nañ ko yoree boo tax nag ndaxte nit ñi jàpp ni daal li nga xam ni moo di aalam bi daal loo ca def rek si lu baax ak lu ci leneen tamit mu jëlloo la ko euh, daanaka mu doon loo xam ni nit ñi tamit war nañ si mën a góor góorgóorlu lu baax a baax a baax a baax ci fànn woowu te nag ci loolu la ñuy di waxtaan nan ngeen ko jàngatee. na ngeen seen nu ñu yore alam bi ci li nga xam ni moo jëm cax ci àll ba nu ñuy goree léeg-léeg nga dégg ñu ne dañuy yëkkati dañuy préféré maanaam dindi àll yëpp dagg àll yëpp ngir rek li nga xam ni moo di béton dëgg la sax nit ki tamit foog moom fu mu dëkk waaye tamit li jëm ci wàllu lu ñuy dundee euh, foog ñu dundee ko dégg nga sax euh, soxna si nga xam ni moo nekk ci ndaa pronate ke rek ñu ngi doon waxtaan ci li ci jëm ci li jëm ci lu ñuy utiliser pesticides yi dem nañ sax benn euh, moment ñu ne li nga xam ni mooy la ñuy lor moo ngi cël la ñuy si suñu plat yi ñuy jëfandikoo bis bu ne ak yenn yi nga xam ni daanaka sax moo jëm ci wàllu développement durable maanaam ca nañu war a yore li nga xam ne mooy action yi def yi est-ce que ca mujjantal ga ñooy ñëwi di ay suñuy doom ak i suñuy sëtaat yi sët du ñu fekk li nga xam ne moo di suuf sa dee maanaam duñ sa mën a jëriñoo ci leneen loolu yëpp day waxtaan yoo xam ne bëgg nañ ko indi waxtaanee ko tey euh, sur seen rajo seen émission loo ci xam ci 88 628 98 98 xam naa nag du ñàkk ñu jël ñeen ñi nga xam seen xel daal màcc jëm ci mbir moomee waaye nag euh, dafa jàpp ndiwloon nag ba léegi rek ñu ngi xaarandi waaye teew te ñu jox kàddu gi askan wi euh, ci la jëm ci li nga xam ni noonu la ñu géré lii di géej gi la cay jëm ci wàllu maanaam pollution li jëm tamit ci naam sax bu nekkee dëgg la am na projet bu muccay boo xam ni euh, ci jëm ci wàllu dépollution bi waaye nag yeneen yi nga xam ne mën na cee juddu ñu jël ñu ci liñ bi déjà asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Moussa. naam sëñ Moussa. ñu ngi lay mën nañ la waay ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñoo ngi lay fay sow sow. di jégalu ci gëj gee déggante. la dëgg la. yàq la. ci àll bi ngay waxtaan. waaw tey ci loolu lañ bëgg. maanaam àll beeg. lépp ci la àll beeg. yoon yu bon yeeg. <laughs> Eh, waxtaan waxtaan wi day xam naa dañuy tënk rek waaye bu ne su wax lépp. Mhm. li may jëkke mooy mooy ci yoon yu bon yi. ah waaw. yoon yu bon yi Moussa. waaw parce que ku bëgg a dem doo dem. Mhm. te bala ngaa génn ci dëkk. bala ngaa génn ci dëkk bi dem ci àll bi am na foo war a jaar. Hmm. ci yoon. Hmm. bu fekkee ne amuloo yoon nag doo mën a dem ci àll bi. dëgg la waaw. suñu yoon baaxul. Hmm. fi ma ci njëkk a tudd mooy fi ma dëkk. gis nga boo jógee Pikine bëgg a dem Malick. waaw bëgg dem Kër Massar. waaw. <laughs> waaw boo jullee boo jullee boo jullee tàkkusaan Pikine. boo moytuwul gee ngay àgg Kër Massar ak mbaa Tivaouane Pël. dëgg la. Euh, li ko commencé yëmbal. Mhm. ba kër ngay dem Malika Moussa station yëmbal bi boo fa demee sa yaram dafay daw. waaw parce que projet projet boobu mu ngi nekkoon ci projet élargissement voie de des Niayes bi la route des Niayes jóge woon école euh, maanaam fii Liberté 6 la jógee sax ba foofu waaye nag daanaka projet boobu ñeenti at a ngi nii daanaka daan laalatuñ si dara. Moussa projet bu doxal boppam projet nit a mhm. doxal. waaw. xam nga boo jëlee say kay rëdd sa projet ne def naa li jëw ci rajo bi wax foofu foofu voie bu am solo la parce que mooy dégager daanaka zone des Niayes bi te zone des Niayes bi dëgg la sax am na corniche bi waaye tamit foofu ñi dëkk yëmbal ak yenn zone yi nga xam ni moo di Kër Massar Malika xam nga foofu tamit c'est des quartiers populaires fay dem dafa bari ci ci askan wi te yoon moo leen di gën di arranger. mën naa ne soixante cinquante pour cent ci Ndakaaru boor boobu lay jublu. dëgg la. Mhm. Moussa yoon baaxul. Mhm. yoon yi baaxul maa ngi doon wax léegi station yëmbal bi. foofu wallahi Moussa du tawee oto dootu fa jaar. dëgg la waaw parce que poto lay doon boo xam ne bii teen la. dëgg la xanaa camion bu mag. waaye mhm. oto bu ndaw moom du fa jaar. te boobaag léegi ñu ngi koy xool gisuñu ko. d'accord beneen ba ca des mooy diggante euh, euh, Kër Massar ba kër ngay dem yëmbal dañ moom dañu koy def ñaari voies. dëgg la xolle nañu benn bi tax ñëw nañ ba booru montagne li ci mu nga ni kàkk. sa bopp li mm-hmm. de poisson mu nga fa mënuñu ko defar. dëgg la beneen ba ca mooy ci booru géej gi. Mm-hmm. li sax foofu boo fa jaaree. bu tàkkusaan passé pour nga jaar fa risque lay doon. amul lumière amul dara suñu may fa la jaar parce que boo fa jaar aussi doo dem. mooy vingt trois bi. beneen vingt trois bi bi mooy gisal ci géej gi. oui mais c'est risqué pour nga jaar fa guddi. c'est mm-hmm. bon bien que Sénégal lu bari dagg nañ ko jox ko ay nit pour ñu pour ñu pour ñu def ko ay kër. waaw mais amul sécurité. mais mais justement loolu loolu sax si problème alam bi la que filaaw yooyu ñu dagg. daanaka ñu ko jox filaaw yooyu. waaw Moussa hmm. xam nga filaaw yooyu kan moo ko planté. Hmm. benn garde forestier bu ñuy wax Samba Sow. bu ñuy wax Samba Sow. Samba Sow. waaw Samba Sow. Samba Ceekuta Sow. Samba Ceekuta waaw dëgg la kay. c'est un garde forestier. Hmm, 1942 la ñu commencé planté Kayar ba ñëw Géejawaay Géejawaay 73 la ñu ko la ñu ko plantation bi. c'était pour que ñu fixer suuf pour que avancer géej gi. oui tey bu fekkee ne bii Abdou Diouf daana wax naan bande verte bande verte bande verte. Mm-hmm. mais loolu loon dañu waroon continuer di planté ba keroog ñu dem Saint-Louis. mais bu état ñëwee. Mhm. pour dina def naa nangam def naa nangam dindi dindi garab ya fa nekkoon. waaw ubbi ubbi ubbi ubbi géej gi. mais mhm. Moussa dama wax ne bu ñu ne dañuy liggéey aussi dañuy nax nit ñi. Mhm. parce que aussi mënu leen demee politique. la ñu defoon lañ ña nga ña fi euh, ña nga remplacé. la ñu nga ñëw dindi garab ya di ko dagg di ko jox ay politiciens te li ma la wax ñi am naa ci lu ma leer. kooku xale bu ndaw bi dooru judd waaw waaw parce que am na décret bu am na bu décret bu génn rek fan yee déclassé déclassé cent cinquante hectares am na loo xam ne ni mhm. kenn ko wax ci rajo mhm. mais jim ñi doy mhm. bu fekkee ni bi dañu dëkk foofu bu jant sooy mënuñoo ñibbi seen kër bu ñuy xëy mënuñoo dem oto yi nga xam ne ñoom ñooy transporté nit ñi ñooy fixé seen bopp transport mais diggante Yeumbeul ak Malika bu diggante euh, euh, euh, kii faye benn bara Pikine bu ñu dem ma naan Pikine deux cent francs ah yëmbal cent franc ku amul wàccal du amul benn homme de tenue boo xam ne bi da ngay ñëw taxaw intervenir ci loolu seen yoon nañu ci Moussa li ma gën a métti mooy bu fajar jotee homme de tenue ne euh, oto yi def transport rek la ñuy arrêté. waaw ah. ko ba léegi dañuy segg di jaar ci mbedd yi. très bien d' accord. am na loo xam ne nii nag mu ne neexul. waaw jërëjëf jërëjëf waaw c' est vrai que ni yaa ngi ñu ngi wax ci leneen lu jëm si alam bi waaye tamit c' est des impacts yoo xam ne. waaw loolu nag bu sax ba nga ne alam da nga fay ne. waaw dëgg la du mu nekk nii. dëgg la du mu nekk mu ngi bëgg a rey. dëgg la pollution bi. mbal maa ngi ci biir dëkk bi. waaw kenn mënu ko yóbbu. dëgg la agression yaa ngi ci dëkk bi kenn mënu leen a arrêté hmm. ma ne dëkk bi amul euh, amul kii lumière. Mhm. am na benn benn quartier yoo xam ne def nañ fa ay ay kii solaire. Mhm. mais dama ko ne solaire ñu ko def aussi dañuy xool autorité fa ñu nekk ñu def ay lampe solaire. bu ko ñu mën ko politiquer. très bien c'est mhm. boo demee ci àll bi Moussa. Ah. yàgg naa wax ni pro Sénégal bi su muy am problème ci suuf lay jóge. mënu comprendre. ab étranger jóge ci àll ba. même bu fekkee dafay investir bu ñëwee nañ ko boole ñi nga xam ne ñoom ñoo yor suuf si. parce que Sénégal dafa am lu mu baaxoo li ñu la wax laman mhm. laman waaw xam ne ñu cay maame maama maamaate maam ñoo daan béy suuf si mhm. ñoom la ko xamee mhm. kon boo bëggee ñëw tey nga ne domaine national bëgg dindi ñooñu foqati ko seen loxo jox ko benn privé boo xam ne bi dafa ñëw def fa benn procès boo xam ne bi du procès bu significatif bu amee ñaari at ñetti at mu commencé ko morcelé ko di ko jaay loolu moo fi am très bien waaw mbay mi moom waaw war ñu koo sàggane dëgg la mais mais état bi gouvernement kii Sénégal buy développé ci mm. mbay la war a jaare dëgg la mais bu fekkee ne mm. moo xam mbéyum ber ngay béy moo xam mm-hmm. sa suuf état bi waroon na waroon na ñëw seet ñi nga xam ne ñooy béy béykat yu mag yi ñu seet nañ lañ leen di dimbale dafa leen dafa leen ay procès boo demee Tivaouane Peulh am na benn procès bu wax euh, kii euh, tool américain bi. Mhm. dañu ko dañu def ay forage ci biir def goutte à goutte. Mhm. noor ak nawet mën ngay béy. mais kaw bi mënoon nañ leen li ci loolu. ñu di béy noor ak nawet bu ko defee dana désengorger Ndakaaru parce que ñu ñëw Ndakaaru boo demee Colobane ñu fay xuslu yëpp. bu na bu nooree la ñuy ñëw amuñu lu ñu liggéey. jërëjëf sama sax ay bato yooyu yoo xam ne ñu ngi si Ndakaaru gi te bu fekkoon ni dañoo defar àll bi. Mm, mm. jërëjëf ñu mën a jël ñeneen ci ligne suñu état bi c'est un état politique liggéeyuñu. jërëjëf ñu mën na jël ñeneen ci ligne bi euh, ci waxtaan wi ndaxte nag euh, waaw ñu bokk waxtaan wi si 88 628 98 98 agression li jëm ci wàllu alam bi environnement bi dëgg la bëri na ñu bëri ñoo ngi ciy teg seen i bët c'est vrai que sax euh, loi ci littoral bi amoon noonu lañ ci defoon ak yëpp kon nag waaye teewul ba tey li jëm ci yeneen i bànqaas ak yeneen yi jafe-jafe ñoo ngi koy évoqué kon nag dégg nga sax bu ci li jëm ci wàllu lii di décret boobee ñu wàcc foofee tamit mu war a daggay filaawu yu bëri kon naam sax mu nekkee filaawaay moom yu bëri commencé nañ ko fa dagg ba pare 88 628 98 nan ngeen jàngatee li nga xam ne moo di nañu yore alam bi fii ci Sénégal euh, ci wàllu politique environnementale bi euh, li jëm ci wàllu sax géej géej ak yooyu yëpp ndaxte nag jàpp nañu tamit yooyu tamit euh, ca la bokk ci 88 628 98 98 ngeen di bokkee. asalaamaaleykum allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, sëriñ Tonto Alxaaji Moussa Thiam. waaw maa ngi lay ziar. waaw Talib Adama Ndione jarbaatu Moussa Thiam fii ci Médina Parkhane. dëgg la ñu ngi lay nuyu. Mouhamed Ndiaye mu ngi lay nuyu di la siyaar. ñu ngi koy siyaar ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Moussa di def lu yaa ngi waxtaan affaire àll bi affaire daggam garab yeeg. ñëpp tali yu yàqee yooyu noonu. déedéet waaw tali yi sax dëgg la waaye tamit ci la. <laughs> waaw boo àll bi àll bi ñu gër ci la bokk. waaw waaw loolu mooy jafe-jafe yi. ah ñu ne Moussa ñun ñu dëkkee ci kaw gi. Mm-hmm. bool booloo nga di xam na li muy wax. Mm-hmm. ñu ne Afrique bu continué na laaj Moussa. Mm-hmm. bottu ñu ñëpp danañ dàq ba bàq ko ci ah, ah, ah, dëkk kaw ñoo ñëw ci taax yi. déedéet waay. amul tax. Mm. Moussa ñun matt si boobu lañ mënut a waaw matt fi mu toll nii tey da gis jigéen yoo xamante ne ak góor wallaay Moussa matt boo dem ci àll boo nekk fa. Mhm. yow euh, euh, gaz amu fa. waaw mën toggee gaz mën ñu toggee kër ñu ne doo gor ci matt pour togg fa la ñu lekkee. waaw mais nag mais mais bant bant bu dee bi quand bant bu wow gi waaw bant bu dee Moussa. bu wow gi Moussa yéen dañu ci am responsabilité bu rëy rëy rëy. waaw xam nga mën na ni indi tam lu mën ñeenti at juróom-ñaari at yàlla ñu dugg ci ñu dugg ci rajo yi di wax la nekk ci kaw ga te ñun journaliste yi dem leen gëstu xaalis boo xam ne ñu dund lan la ah mais bien sûr chaque jour am na ñooy ndaw ñu fa ci liggéey ndaxte am na ñu ndaw ñu fa nekkal defal naa rek xam nga lu tax waxtaan tamit wax dëgg ci la euh, dañu am ndaw ñu fa nekkal euh, je pense que problème yëpp waaw léegi dañoo Mamadou Camara non ñun lu ñuy def xam nañ ko bu baax dinañ xam. ci ñu ko jógee waaw waaw d' accord léegi kon maanaam ñun daal Moussa boo déggee ba bëggee dégg dëgg. ñun waa àll bi sonn nañ ci mbirum matt mi. jigéen ñaa ngi ñu saa ñu amuñu kenn koo xam ne ma nga dem si àll bi gor benn matt boo xam ne nga yóbbu sa kër. waaw pour ne certain matt boo xam bu ñu ko war a jaayee tey 3000. baamul ñaari junni doo am matt. yéen yéen ban matt lañ leen autorisé parce que léeg-léeg tamit matt gu tooy gi la ñuy bañ moom. mu mën moo moo ah soo dégg ba leen mën a wax ne Moussa tey boo demee si àll bi tey gars yi gars yi am doole yëpp jël nañu àll bi. Mhm. maanaam Moussa ñun dañoo sonn sonn boo xam ne Moussa nañu dimbali si mhm. ñu ne amuñu gaz gaz quatre lay jar te xam nga nekk si àll bi war a togg lu mat fukki kilo jiw wala nga war a toggal saako am na si daara yoo xamante ni. waaw mën nañu togg saako ceeb. Mhm. yi ko mën a toggee gaz chaque jour. mbaam gàtt na waa si jur gi la bokk. dëgg la kay la waaw. ah nañu dimbali li ñuy wax ni waxuñu ko ci suñu intérêt dañ ko wax ci askan la ñuy dund. bien sûr bien sûr. tàngal ku ko màcc moo xam li mu saf. Mhm. bool bool li mu wax moo xam ne si dara moom ndax xam day dugg si day dugg si àll xam na xam ne la xaw ci àll alaaj Moussa. dëgg la dëgg la. nañu dimbale ngir yàlla. dëgg la dëgg la nañu bàyyi saa bu ñu soxlaa mat dem ci àll bi boo ko ñu toggal toggal suñu xale ñu lekk. ah gaz 4000 francs lay jël Moussa 4000 francs gaz bu wér ndongo daara ba xam ne lu ma téeméer ndox wala téeméer saako ci mën naa jënd gaz sax sur Moussa jërëjëf voilà jërëjëf euh, jërëjëf euh, kon nag xam naa du ñàkk comme ni leen ko am du ñàkk nag ñu jokkoo ak euh, kenn koo xam ni environnementaliste la mu gën ñëw waaw dafa jàpp ni woon sànq mais du ñàkk léegi rek su nekk am na ñu nekk ci ligne bi ñu daje waaye nag teewu tamit nañ ko dañ jokkoo ak moom léegi après jéem a xool bu nekkee loolee mën na jàppandi ci waxtaan bu ñu waxtaanee tey. te xam naa da doon njóobeen yi dinañ ko dinañ ko kii quoi xam naa da doon ndékki moo tax sànq <laughs> téléphone bi moom nag ma jaxase koog njóobeen yi tuuti ñu jël sëñ Bassirou Bassirou Ndiaye waaw sëñ Bassirou Ndiaye nag moom euh, environnementaliste la xam dafa màcc jëm ci na ñuy yore alam beeg yooyu yëpp ndax ci sànq moom lañ bëggoon jël xam naa njëkk li ko xawoon téye rek wala du loolu sëñ Ndiaye. waaw déet waaye nekkoon ci yite yi rek. waaw <laughs> ah, d'accord damay tooj rek <laughs> voilà sëñ Ndiaye euh, kon nag gis nga liñ doon waxtaanee. ci jëm ci wàllu nuñ maanaam politique environnementale fii ci Sénégal gis nga nag daanaka tout le temps on parle donc réchauffement climatique aléas yi bëri na donc euh, li jëm ci wàllu tamit changement climatique yi impact yeeg yooyu yëpp euh, fii est-ce que globalement politique Sénégal te mois de juin gis nga daanaka si la ñuy célébrer li jëm ci wàllu alam bi ndaxte gis nañ si journée mondiale de l'océan des océans gis nañ fi tamit journée mondial euh, donc de l'environnement mu doon weer woo xam ne daanaka dañ si wax lu bëri alam yéen ñii di environnementaliste yi ban lecture ngeen di def ci globalement environnement Sénégal bi. waaw merci maa ngi maa ngi lay remercier di remercier ñiy déglu. Mhm. Euh, man Bassirou Ndiaye environnementaliste la. Euh, mhm. donc euh, li nga laaj nag c'est important parce que ñi am fitu laaj ko bariwul mhm. danga laal fu baax fu nooy foo xam ne fii loolu la Sénégalais yi soxla wax. pour lépp leer parce que xam nga Sénégal créé nañu ministère de l'environnement teg ko. mais vraiment désordre bi fa am euh, amul ci beneen ministère parce que amul suivi ci dara dañu teg ministère bi man daal gouffre d'argent li ñu naan lekkukaayu xaalis la man loolu laa fa gis on dépense beaucoup de milliards te réaliser wuñ dara lu concret en matière d'environnement mhm. boo xoolee dégradation bi c'est à tous les niveaux mhm. bu dee ci géej gi yaa ngi déggoon nga fan avant sax ñuy ñëw ci affaire pêche bi déggoon nga feebaru mool yi biñ ko amee ministre bi di wax naan mbaal yi laa lu ne mu wax ana wax jooju génn nañ si donc noonu la ñuy fonctionner. Mhm. dañuy ay thèmes la ñuy jël di ci fonctionner alors que environnement bi warul doxee noonu parce que li ñu war a njëkk xam mooy suñu espérance de vie. Mhm. ndax ñu mën a gudd fan ci alam bi la nekk. Mhm. Euh, buñ ko considéré wul mooy ñun ñi ngi rey suñu bopp à petit feu. oui maintenant autorités yi nga xam ne dañu leen am responsabilité wu. Euh, toppatoo environnement bi. Mhm. Euh, approche bi ñu bi ñu am moo baaxul approche étatique. Mhm. moo baaxul environnement da ngay wàcc suuf. Mhm. di wax ak askan bi di jokkale askan bi di demalante ak askan bi moo tax tey rôle gendarmerie de l' am solo. parce que li ministère bi di nelaw yëpp yëpp yëpp yëpp gendarmerie environnement moo taxaw tey di xeex euh, fu problème am ñu woo ko. pour mu rétablir l'ordre oui. et tu vois nettement que il maîtrise beaucoup plus que ñi nekk biir ministère et c'est malheureux. Mmh. donc euh, tey suñu géej gi yàqu na. Mhm. yi amatul benn yabooy tey yaraax. Mhm. keesu yabooy bu 40 kilos da nga naan rob boo xoolee lu bëri sax ñu may la ko. mu dem bay jar téeméer ba cent tey benn yi cent 250 lañ koy jaayee. Mhm. attention nañu xoolaat bu baax. boo demee si àll bi suuf si baadaloo yi ñàkk nañ ko. le développement est rural dëkk àddina bi yëpp yi développé yëpp ñiy baykat yeeg nappkat yeeg te sàmmkat yi ñoo ko développé. Mhm. Sénégal ñi nga xam ne dañuy liggéey juróom-ñetti waxtu. waaw du ko mët yéex a xëy. teel mhm. a wàcc. Mhm. ñooñu ñoo yor xaalis di doxal. ñii xëy fajar bu ñu jullee fajar dem ba timis wala gée soog a ñibbi seen kër ñooñu ñoo yor économie bi te ñooñu yoruñu dara gisuñu dara. donc environnement bi dañ ko war a xool. saytu ko tënkaat ko tegaat ko. Mhm. ci honnêteté parce que nag Sénégal ñoo ko bokk. Mhm. mbay mi doxul napp gi doxul taw bi bëreetul li ñu yàlla mayoon as tuut ñu ngi koy yàq. Mhm. di jox ay contrat yoo xam ni kenn xamul nu mu demee. waxuma ni baaxul mais dama ni contrat bu leeru leer day tey xel. mais contrat diggante maanaam euh, exploitant wala si yenn contrat yi parce que euh, quand on parle que ni ñi nga xam ne ñooy def exploitation yi parce que gis nañ nii waa am na ñu bëri sax dañuy taxaw di xeex ci li jëm ci wàllu agriculture écologique bi parce que maanaam gis nañ ni bon actuellement euh, dégradation sol bi moo ngi am benn ampleur boo xam ni fekki at yi at moom daanaka nit ñi dootuñu jëfandikoo suuf si pour mbay. nga bu ñu bàyyiwul li ko jox étranger gis euh, nga la loi c'est pour les citoyens les bien d'un pays appartiennent aux citoyens de ce pays. fii Sénégal da ngay nekk étranger ñu daggal ay cinq cent hectares six cent hectares trois cent hectares nga téye ko ay vingt ans defoo ci dara li ñuy reproché paysans yi naan sama suuf maam la. Mhm. ñoom moom la ñuy def en temps moderne. jël suuf yëre kay téye ko vingt ans liggéeyoo ci di xaar mu am valeur wala tali jaar fa nga soog ko exploité. Mhm. waa dëkk ba nekk ñu bay dara mu am mais loolu def dadul yoon. Mhm. fu fa c'est-à-dire fan lañ ko teg ci lan parce que vous êtes des somme d'affaires mais mais c'est notre problème ñun bu fekkee vous euh, êtes des hommes d'affaires. suufu Sénégal sénégalais ñoo ko war a njëkk jëriñoo ku ñëw mhm. buñ la ci joxe da nga naan dëkk yi la wër. da ngay jël genn wàll gi. nga mhm. séddale leen ko bu dee ñeenti dëkk la. ñu séddale leen ko. cest à dama la bëgg a wax ci li muy jur ci xaalis. waxuma rek ci liggéey bi ñu jël seen i doom ñu liggéey parce que liggéeyu falaa falaa la. Mhm. mais mais sur sur sur l' environnemental euh, loolu nan nga ko mën a jàngatee parce que d' habitude gars yi dañu naan euh, agriculture donc euh, de rentabilité la ñuy def maanaam dañuy fertiliser sol yi avec donc de l' engrais en outrance ak yooyu mais loolu loolu tamit jafe-jafe la. suuf si loolu moo tardeel loolu moo ñu tardeel. Hmm. xam nga agro business mooy ngay produire en quantité mais da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay kii. sol bi. waaw si. Mm-hmm. def ay ñama ñama yoo xam ne c'est comme jumbo bi ñuy def si ñam bi rek ni muy def yaramu nit. Mm-hmm. bon loolu loolu mooy jumbo suuf si aussi donc loolu da koy def. waxal bouillon bouillon jumbo mark jàmbur la. mu ne. ma ne waxal bouillon jumbo marque jàmbur la. jumbo laay wax ndax mi ngi rey nit ñi. amul bouillon amul dara jumbo lañ xam jumbo la ñuy wax. wolof mm-hmm. la ñuy làkk. bouillon tubaab la. dama ne jumbo bu amee beneen tur ci wolof nga wax ma ko. waaw. waaw ñoom ñoo ko tuddee noonu ñun ñu ñu ñu koy waxee noonu. Hmm. donc donc euh, si ça gêne aussi c' est le problème ñun ça gêne beaucoup plus côté santé. Hmm. voilà kon ñu tudd seen tur ci exemple hmm. donc damay ñëwaat ma ne lii jumbo bi ni muy def ci ci ci ñam bi noonu lay def engrais bi loolu lay def ci suuf si dégg nga ma. dafay rey suuf si di nga jël juróomi at wala fukki at yoo xam ne di nga produire lu bëri bëri bëri bëri. waaye bu loolu weesoo. suuf sa yàqu Mhm. beneen façon wun euh, mbay doo ko fa def mhm. donc loolu moo tax ñu war a agro écologie maanaam gis nga garab mhm. day màgg waaw am fruit bu ma jox la mango par exemple njugub yi ñëw song ko xob yi deey wadd garab bu ngelawee xob yi deey wadd yeneen xob génn xoox bi wadd xoox bi fa wadd ci suuf xob ya ne fa ndox mu taw mi ñëw fekk ko fa dafay nëpp décomposé xoox bi sax jur mango loo cest à noonu la ñu war a xam nga suuf boobu yàqoo ci dara. Mhm. noonu la ñu war a bàyyi affaire bi mu demee. ñu mhm. bañ a yàkkamti. ñu jox nit ñi suuf yu doy ak moyen. Mhm. ñu mën a bay. mais mais tey cultivateur bu demee banque jox ko trois cent mille. industriel bi bu ñëwee mais ñu jox ko quarante milliards ah ak faveur ak président de la république recevoir ko mës nga toog rek gis nii nii rek paysan rek jël rek. comme ni ñuy recevoir am d'affaires yi ñuy dugg ak génn di dugg ci palais bi paysans yi di dugg ak génn wala nappkat yi di dugg ak génn. Mm-hmm. non non non dañ leen di recevoir dakk leen comme ay thon ci ay sardines ci pot dajale leen ñu wax benn deux de temps ñu joxe xaalis nelawal leen ñu dem. très bien mais mais sëñ Bassirou euh, am na benn phénomène boo xam ne tamit dañ koy wax parce que quand on parle également de euh, ñu ngi wax ay euh, maanaam dëkk bu verte ak mel noonu les villes mel noonu mais gis nañ ni vraiment côté verdure moom daanaka bëreetul ci ci ci villes yi wala ci ci ci communes yeeg des comme ça mais na nga mën a ñu na nga mën a expliquer donc phénomène boobu quand on parle donc ci li nga xam ne moo jëm ci xeex wala daal instaurer lii di ay villes vertes ak mel noonu. foofu rek laa gis ni état bi en tout cas teg na ci loxoom. Hmm. ci politique environnementale. te loolu sax dépendul ci ministère de l' parce que dafa am agence de la reforestation et de la grande muraille verte. oui euh, le ministre Ali Haïdar moo ko yore. Hmm. di def liggéey bu am solo ci Sénégal fu ne di def reboisement mi ngi créer ay pépinières li ma lay wax lu ma teg sama bët la. Hmm. mu leer man du ma wax lu amul parce que kenn neexal lu ma man du ma neexal kenn. mais dama ni kooku laa gis muy def loo ci wàllu alam loo xam ne lii nit mën nañ ci teg loxo. Mhm. cest tey mi ngi créer la plus grande pépinière de Dakar il est en train de mettre ça en place. Mhm. loolu ça permettra quand même cité yi ak koñ yi bopp koñ yeeg mbedd yi allées yi ñu def ci ay garab. Mhm. tey arekaar yi boobu ñu. chaleur bi day day jàll. da ngay ñàkk tooy xepp. alors à côté waroon nañu mun def ñaari garab yoo xam ni. Hmm. dañuy nekker. ngelaw li di upp di toog di xaar au moins mu am xam nga benn moment boo xam ne dina yëg bopp. Hmm. dox na ba sonn ñaq na ak tey Ndakaaru boo duggee boo bëggee tuur ndox boo jëm. Hmm. amul dox Dakar ku ndox mais amul foo mën na tuuree ndox. loolu li ma lay wax c'est extrêmement grave. waay amul fo léegi nooy mujjee def ci rase les murs. toppataatu biir yi wala diggante oto yi. taxaw mais loolu góor sax xaw mën na ko mais jigéen waaw il faut ñu xoolaat affaire yi. il faut ñu yi. Mm-hmm. Mm-hmm. defar réew mi du politique rek suñu xoolal tey ñu ngi ne élection locale ñëpp jóg mu mel ni ay fecckat ñoo fi nekk c'est-à-dire on trop il pas de rigueur dans la gestion environnementale. Mm-hmm. soo jàppee nit sax ci naka su noonu ñu intervention ñaan ñëw raay pomaat pour ñu bàyyi mu jàll. loolu defarul réew. Mhm. tey boo jëlee projet dépollution benn ànd bii nga xam ne démarré na par exemple ñu dem ci wàllu géej gi. Mhm. Euh, wala pare nañ ci suuf si wala ñu demaat ci suuf si tuuti allo. waaw ñoo ngi lay dégg ñoo ngi lay dégg waaw. waaw euh, man de léegi ñu dem ci wàllu géej gi. Mhm. tey boo jëlee projet bi nga xam ne quatre-vingt-treize milliards ñu def ko fii benn ànd. projet bi démarré na mais kenn xam ci dara entreprise day def lu ko neex jël projet bi sous ko. jël ay sénégalais di leen liggéey loolu di jox ko 93 milliards mais 93 milliards yooyu nañu ko jox entreprise sénégalais yi liggéey mais sénégalais ñoo nekk di liggéey marché mhm. ay doomu Sénégal ñooy liggéey tey marché bi ñu jox waaye Pfeiffer nga xam ne c'est une entreprise mhm. ñu ñëw jël loué ay machine fii yu màgget di ko di liggéey loolu la ñuy reproché sénégalais ne ne amu leen matériel amu leen al al tey nag tubaab bi mu ñëwee loolu lay jël di ko liggéey ba pare jëlaat nit ñi ñuy liggéey yooyu lañu ñu war dindi ci dëkk bi. boo xoolee corniche la fa am mais c'est du grand n'importe quoi. Mhm. dafa ba kenn mënatul gis ndox mi bon xoolal tey damay tudd ay tur de. man damay tudd ay tur ku bëgg nag ma yóbbu tribunal. déet waay non non dañ koy c'est waaw mais parce que tant que mënuñu ko jot moom c'est sera un peu compliqué parce que dañuy bëgg moo am kéem daal. ok bon boo demee corniche. am na mhm. fa ay hôtel. Mhm. côté Fann ok bi. am na ay hôtel yoo xam am na ñoo xam ne mais dugg nañu trois cent mètres ci biir géej gi te lépp dañ ko sëkk. wax mhm. ci ay kër ay néeg. Mhm. ah defar defar dig dégg nga créé c'est-à-dire fi nit ñi di doon li des ci corniche bi nga xam ne foofu la ñu woowee teeru bi ci suuf. Mhm. ñu fay lakk jëm sax nit ñu mën fa dem nga xam ne amuñu moyen dem ci ci yenn restaurant yi mais loolu sax ñu ngi leen koy xaj parce que ñu ngi nangu foofu donc yooyu vraiment dañ ci war a taxaw. très li muy jur li jur ëllëg. xëy mm-hmm. na ñoom ñu ngi fi mais ci kanam tuuti ñoom bi ñu fi ne ñeneen daf yi ne mais li muy jur kenn xamu ko. Mm-hmm. mën na révolter population yi. très bien benn nit du ñëw. Mm-hmm. té téeméeri junni nit taxaw benn nit am dëgg seen kaw. ngelaw bu nekk bi maa koy noyyi euh, maa ngi xool horizon bi maanaam fajante bi di tëddee maa koy gis maa koy xool yéen taxaw topp leen ca kanam ngeen tàncaloo loolu xel nanguwu ko. très bien environnement dañuy yaatal. environnement. Euh, ñëpp dañ ci war a gis seen bopp. dëgg la bi. Mhm. da war a gis boppam. très bien. garab mhm. ngelaw li ci boppam. waaw pollution bi. Euh, euh, setaay bi. Mhm. dëkkuwaay bi. ñëpp dañu bokk ci environnement. dëgg la. tey boo xoolee da ñëw Dakar nga gis benn benn booy li benn booy yore jaaykatu picc yi gis nga leen. mu jël picc def ko ci kees jël ko di ko jaay. mais loolu loolu c'est interdit. loolu mm-hmm. amu ci amu ci droit les mm-hmm. oiseaux sont en liberté picc yi mm-hmm. yàlla da leen bind ñuy naaw di demal seen bopp bi ñëwal seen bopp te picc boo gis région boobu dëkk wala xam comme ñun ñi xam Dakar tey bu ñu la yóbbu woon Tamba nga bëgg a dee ak tàngaay te te dëkk Tamba moom mën mën koy dund parce que yaramam miis na ko picc ba nekk Tamba ak picc bi nekk Dakar bokkul boo jàppee picc yi ci àll bi indi leen Dakaaru jël ko def yi bu këram yooyu wëndeel seen bopp bàyyi mu dem picc bi am fi ndey am fi bàyyi am fi néeg day wër fu mu taxawaalu dana fekk moroom piccam bu ko dëkk bu doon ko muy wër amul fi dara amul fu mu lekkee amul fu mu naanee mm-hmm. nañuy xalaat parce que kooku jël ko di ci def xaalis amul picc bi mm-hmm. donc ñooñu bu ñu leen gisee sénégalais yi nañu ubbi cage yi bàyyi picc yi dem libéré leen très bien parce que ñooñu moomuñu parce que xam nga kan moo mën a jaay picc mm. ki jël picc jàpp ko dundal ko protéger ko def ci cage di ci investir di ko jox muy lekk kooku mën na ci def activité commerciale. très bien mais jàpp rek jaay yóbbu sa kër lekk gën a gën non non non nañ ci taxaw gën ci farlu ba ci dem maa ngi suivre conseil des taxul problème bi dem. dëgg la suñu jël ñi ñu war a jël. Mm-hmm. teg leen ay service de contrôle. Mm-hmm. ñu bàyyi audience publique yi nga xam ne dañuy jël di ko sacrifier. Mm-hmm. population yi bu ñu defee audience publique indi dossier population yi bañ ko valider. ñu dem tëju ci biir ci bureau ba. ñoom dem. dem seeni pexe joxe quittance bi société bi dem. Mhm. mooy jur problème yi ngay dégg. très bien waa ji investir xaalisam ba pare. Mhm. bi ne mu ngi ñuy sonal. waay mu ngi ñuy lii mu ngi ñuy la. mu mhm. ngi ñuy lële. très bien nag ci biir nguur lay xewee. doo génn si mbedd bi. dëgg la kon nguur moo war a defaruwaat. defaraat ay nitam ñi koy liggéey ci biir këram. ba pare ñu soog a mën a defaraat toogaay yi. jërëjëf ñu bàyyi tamit bi may gën a insister mooy. ñu bàyyi ko nasaraan yi yi xam dañ li nga changement climatique. Hmm. kenn mënu ko régler te régler woo d' abord le réchauffement climatique. oui c'est-à-dire il faut que ñu nekk nit. gis nga dafa tàng lii muy tàng boo ko réglé wul tàngaay bi dana la a rey. Hmm. loolu la affaire bi tëdd nag. jërëjëf jërëjëf on parle de changement climatique loolu tubaab yee koy dugal suñu bopp. Hmm. bu ñu leen sax faale. très bien changement climatique bi ñoom nasaraan yi ñoo koy def. très bien waaw. ñoo yor industrie yi di taal di kii glace yi di sey ndox mi di yéeg yéeg di avancé. Mm-hmm. dégg nga climat bi changé taw yi dem yooyu yëpp. ñoo mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag c'est le problème de taxe carbone bi voilà c'est ça. waaw merci. voilà man daal jërëjëf laa jërëjëf jërëjëf sëñ euh, Basirou vraiment pour le courage bi jërëjëf ñoo ngi lay gërëm sant si mais maa ngi suivre jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ euh, Bassirou Ndiaye moom euh, environnementaliste la donc bëggoon addu ci waxtaan wi di ngeen nu mu jàngatee lii di situation bi ba ba tey rek ñu continuer que ñi ñuy déglu ci 88 628 98 98 ci phénomène yi mu évoqué ak yooyu yëpp kon nag mu ngi ci asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw alaaji bi. alaaji Moussa. maa ngi lay ziar baal baal. maa ngi lay ziare ñu ngi lay fay bu baax a baax. di sama soppe. waaw jërëjëf waay alaaji boo jërëjëf ak sëñ Mamadou Dieng. waaw jërëjëf. ak ak doyen Ibrahima gëj nañ ko dégg. Mhm. <laughs> di nuyu ñëpp. mu mel ni tey sa waxtaan bi. Mhm. xam naa ne su fekkoon ne la dama naan classe yi du doon benn. waaw. xañ na ki nga génne léegi war naa nekk professeur université la mhm. ma ngi wax ak waa université mhm. <laughs> waaw fekkee ne ku mel ni man la maag Malick Cissé mhm. suñ ñëwee damaa xamut sem lan la ñuy nekk xaw ma kaas ku pëti lay nekk xaw ma lu ñuy nekk waaye daal su <laughs> ñuy déparé moom dina wuute parce que dafa am lu ñuy dund parce que comme ni ñu ko waxee léegi euh, euh, soo demee ci àll bi damay def directement foofu rek comme ligne bi xaw na doy waar doomu aadama moom dafa am lu paase dëkkuwaay. Mhm. ak dund. Mhm. te olof yi dañu wax ne aadaay réew du aadaay réew. waaw te luwaay yi duñ ko dee tëgg. Mhm. dañu war di xool sénégalais bi gën a suufe ak sénégalais bi ne ci digg bi ak di gën a kawe. dëgg la mais xañ na Moussa Thiam bi nga xamante ne dafa toog sarse gaasam ba mu fees parce que léppam dikk toog bëgg bëgg féex bëgg a def nangam. su toogee bëgg atte tey bawal bawal bi nekk ca àll ba. Euh, comme boppam du sotti. dëgg la gis nga ñi nekk ci àll bi ñoo gën a soxla maanaam lii di garab. waaw dañ koy sàmmal seen bopp. Mhm. parce que boo demee ci àll bi tey tool yi pour pour tool bu am meññet. waaw tool boo tool bu ëpp ay garab. Uh-huh. moo moo la gën. Mhm. kon ki yaakaar lu mbay du yàq garab. dëgg la waaye nag yàlla daf ko nattuwaat. muy koo xamante ne ki néegu ñax la dëkk. Mhm. yor sàkket. maanaam itam amut ab gaz amut lenn li muy def mooy li muy añeek li muy reer li muy ndékke lépp mhm. ci bant la koy def kooku yaakaar naa luwaa bi nga koy tëggal mënta bokk ak ki nga xamante ne yàlla subhaana taala dogal la saa du gisee bant da koy takk ba mu gën mu sànni mhm. ñaar ñooñu nag dañ leen boole même luwaa mhm. Moussa da ngay dem ci àll bi tey risque koo xam ne day bàyyi ba bëccëg jot ngelaw ñëw jàpp ay néegam wala mu jël ko daaneel ko yaakaar lu paase bant mu yéeg ci garab gi ne ci biir këram niimaa bi nga xamante ne moo ko moo ko moo di jël katalaak ndoxam di ko ci sutti mhm. mu gis bant ca kaw boo xamante moom la war a mën a jël def ko ak xar wala mu def ko aw jën mhm. damaa xamul ne yow loolu doo ko xam waaye gars yi dañu xam li may wax mu jël ko samp ko balaa bëtt jot benn xale bu ñu formé mu yor kaleeram daw ba egsi mhm. dikk toog dindal koo koy ne ko na ñëw wuy si dafay am benn eaux bi nga xam ne dañ ko fa andi pour mu pour mu sàmm àll bi. Mhm. day am benn een bu dox ak ñoom. Mhm. te su fekkoonte ne waxtaan nañ ba nga xamante ne xam nañ la fa nekk. mu ñëw ci chef du bi. Mhm. dëkk benn bu ci ne mu ñëw ci chef du village bi waxtaan ak moom. xamal ko ne ko kii kat su demee ba mënta ñàkk a bant. na jaar ci yow parce que tey du chef de par par exemple tey du benn eaux et moo ñëw nekk ci arrondissement bi. arrondissement bi am na dëkk boo xamante ne digganteem ak moom war naa toll ci trente kilomètres wala quarante kilomètres. aw moo fas aw moo amoo leneen pour nga xam ko da ngay xëy pour nga am këyit da ngay xëy duggee foofu wala nga doxe foofu dem fa fa mm-hmm. egg mm-hmm. nga egg ñu la taal na scooter am wala taal na nangam wala yëndu bi wala ma nga séminaire Thiès wala ma nga séminaire feneen <laughs> uh-huh. nga yënd fa ba ngoon jot te yow sa ay nit bëgg a daanu wala nga am tey xew mm-hmm. war a xëy ngénte wala nga war a kiite nga am sa benn carte boo xamante ne daanu da nga ko war a xam cest li muy indi ci àll bi man dama jàpp ne dina ma parce que dama fa fekk ñaari dama dox ba benn bi dama ko dégg dëkk boo xam ne dafa lakk. Mhm. ba ngoon jot ñu ñëw di leen dimbale. waa mhm. dëkk yeeg ñëw taxaw kenn ku ne jàpp daggaay xer RFA bi daaw ba bëccëg jot mu ñëw. Mhm. daal ci seen kaw leen di ngeen dagg reen ko raam. gaa yi génn seen i jaas ak seen i wet. mu daw. loolu xam mën naa leneen. benn bi dama gis kilifa diine. boo xamante ne ci benn dëkku diine la génn wàcc liggéey. ci kilifa boo xam ne dem dem ku betteel la dem. ñu daal di koy wax dëkku cosaanam bi nga xamante ne fa la départ ñu jógee fa. Mhm. nga xam jigéen ñi ñoo jël kenn ku ci ne matt yi nga amoon génne ko parce que matt mhm. mhm. leen ñu taxaw mu laaj leen matt mi këyitam ñu ne ko amuñu ko day. waaw sëriñ bi moo wàcc liggéey dem mu tontu leen kàddu goo xam daf leen wax ne leen seen sëriñ ba gën a mag leneen tudd leen su ko soxla woon sax matt mi du dem. déedéet waay xam nga ci am na ci yoo xam ne daanaka du ñuy nit. nam fa mujj jógee dafa mujj daa wàcc fa scooter <laughs> xam nga loolu mën naa di jiyee duñ ko andee nag bu ko mhm. nit ñi jotee mhm. duñ ko duñ ko traité noonu dëgg la waaw kon dañuy ñaanaat ci mhm. fay comme ngi dégg euh, émission bi mu am solo lool ma ngi déglu ñu ngi bëgg gërëm suñ Basirou Ndiaye mais ñu xamante ne mbaam gàtt na mee ci jur gi la dëgg la àll bi vraiment ñoom eaux forêt bi ñoom ñoom seen partenaire la parce que seen garab yi bëgguñu ko yàq parce que moom la ñuy dundee ci la ñuy toog amuñu clim amuñu lenn ci la ñuy def lépp kon bëgg nañ ku leen ko sàmmal waaye nag dund mhm. moom la jund moom la ñuy tekki defee da leen di former formation boo xamante ne mhm. vraiment na sàmme tey mhm. ci say diggéej ak na sàmme tey loo demee baax loo demee Kajoor ñaar yooyu war naa nekk su ko deux bokkuñu dëgg la ñoon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne vraiment macha allah émission bi am na solo lool ñëw na waxtoom mais wax dëggante yàlla ci àll bi moom eggaat nañ fa nga xamante ne eggal nañ fa laaj joor ak nangam liggéey parce que xam nga loolu taxal loolu hmm. Moussa bañ la woon hmm. te xam nga nit du fekkee ne yàlla dogal la mu dund ba màgg hmm. am ci dëkk juddoo fa ma am dëkk ba nga dikk imposé na ko yow léegi suuf si moomatoo ko te yoon nekku si da man bay soo ma état ko moom muy benn notel nga wëlbati ko dikkaat ne ko garab gi ne sa biir kër amatoo koo dagg amatoo sañ ah, nga dikk nanguwaat forage la danaa a waaw bu fekk ni dëgg te waa jooju moom amut ak salaire amul dara yaakaar lu paase bay dem dikk toog. Mhm. mais Moussa waa bokkut ci réew mi. <laughs> bokkut nit ña ko bëgg a boole rek. <laughs> mais boo ko bokkut. parce que amatul benn sañ-sañ. amatul sañ-sañ ci ndox mi moom. amatul ndox ci suuf si moom. Mhm. amatul soxla ci gaz gi moom. Mhm. te amut ak salaire. kenn fayu ko bokkul. mais Moussa kooku bokkul ci réew mi. te loolu Moussa doo taale sootam bala kaa def trente kilomètres ko. dëgg la dëgg la. xale yi di ko waxtaane nag te jàng mhm. di yor ci téléphone yi ne ci groupe yi di ko waxtaane ne mhm. ci garapas di ko waxtaane gis nga balaa ko kilifa yooyu yëg ne lii am na mhm. benn bis rek la ñuy xëy gis ci loo xamee lu yaatu lay doon loolu seen ñaanu ko yàlla nan xamante ne àdduna bi fee dafa ubbi ku ni ab dafa waaw waaleykum salaam wa rahmatullah <laughs> la jërëjëf ah, loolu de la moom rek ne moom c'est un village euh, donc plantaire euh, on dit ñu jël ñeneen ci ligne bi ci maaleykum salaam wa rahmatulah. nuyu. ñu ngi nuyu di Moussa. Uh, waaw. Euh, sëñ la waaw Amar na nga def bisimilah. ñu ngi alhamdulilah waaw sa ñaari intervenant yi mujj yi de. macha allah macha allah. Mhm. naa leçon yi bokkul waaye yëpp am solo. waaw. Mhm. waaw man fi sa waay mujjee. day commencé àll bi xam nga àll bi dafa mel amul ci àll bi. waaw waaw parce que bu fekkee am na benn asma ooy forêt bu ñu fa bàyyi boo xam ne moom. Mhm. pour ku jël benn matt boo fekkoon benn kàddu bu dee sax nga gor ko mu ñëw am ak yow problème. Mhm. du loolu àll bi Moussa dama lay wax. soo mhm. demee Kajoor Bawol fii bassin régalier bi. foofu garab yi ñu amoon ñu ngi dee di dem di manqué di dee di dem muy guy seen kàdd sump yooyu. léegi daal mënuñoo am ak ñoom benn politique boo xam ne luy remplacer garab yooyu ñu ngi koy doxal déjà. parce que ñoom euh, mais demuñu ko. Mm. soo demee si àll bi fii yooyu amul te garab yooyu ñu ngi dem. Mm-hmm. te foofu jafewul de. wallaay suuf yu nangu boo fa ne gis a soo demee tey ci dëkk yi àll yi. Mm-hmm. limon bii ñuy jël benn garabu limon rek jëmbat ko fi ñuy jàppe xam nga ne amuñu ndox. Mm-hmm. te ndox bi ñu leen andi dafa seer. def garab bi fi ñuy jàppe wala fi ñu raxasi seen bool yi da ngay gis macha allah mu meññ mel benn melokaan boo xam ni. nga xam ne àll bii ku fi def ndox mu dem. mais politique environnement mënoo ko bëgg te ñu nanguwuloo génn xaalis def ci ndox mi àll bi ndox buñ ko amoon. Mhm. ñoom garab dañuy wàññi waaye du ñu doo ñëw naa leen jëmbat leen ko. Mhm. waaw fi ñu war a jële politique bi lañ ko jëlewul. Mhm. bàyyi àll bi wow comme mu weex tàll désert bi li di naan ñu naan désert désert te mhm. soo koy xeex da ngay indi waaw parce que l'accès à l'eau euh, loolu parce que nit ñi tamit. Ah, mooy defar environnement tam. Mhm. fu ndox amul bi boo demee doo bëgg a xëppi sa bët xool. non c'est un droit lu wow kese ngay gis. lu wow mhm. kese kese. te bëgg nañ ko dañu amul ay moyens gis nga xale yii bu ndox amoon kajoor ñu toog fa. Mhm. te bu te loolu lépp day défendre environnement. politique il faut ñu boole lépp. Mhm. ñu daal di kii rek ministre environnement mënuñu bañ a liggéey. ministre mhm. environnement boo xam ne ci biir nga koy gis jardin yi mais Dakar dëkku taax yi am nañu xaalis ñooñu boo leen defal loolu tax amee xaalis dinañ defar seen jardin. jardin yii loolu du defar environnement bi de environnement bi ñu ko bëggee désert dañuy gis da nga yaakaar a Mauritanie nga nekk mhm. te àll la boo xam ne boo fi defee ndox ne leen garab yuy dee nañ leen remplacé mhm. wala nañ ko pareel balaa muy dem léegi nga dem foofu lépp vert mhm. parce que liggéey na xëy na xëyum ndax xëy na xëy na mais nag duñ man dama gëm ne ñi ñu war a jox ñu war a liggéeyloo ñi ñu war a déglu duñ leen déglu kilifa gi njëkk a daaneel léegi ama alaaji bawol bawol waaw wax dëgg yàlla xam-xam dëgg la fi génnee loolu mooy man dama li ma jaaxal ci dëkk bi mooy ñi am xam-xam bi xam li xew ci dëkk bi ñu ngi fi. moo tax ñu bàyyi nelaw. waaw loo loo tax ñu ubbi émission bi xam-xam yi di ci génn. ah allah <laughs> xam-xam muy alaaji boor boor ah, di ki njëkk a dëgg la waaw mais nag problème bi mooy Sénégal da ngay dégg ba sa xol sedd laa wax de. wallaay dégg ba sa xol sedd. Uh-huh. mais boo génnee da ngay gis di gis ba sa xol tàng. <laughs> waaw dëgg <laughs> ah, xam nga Kajoor Bawol bi soriwul demal nga xool. wallaay dëgg la garab yaa ngay dem dara lu ko remplacer amul. Mm-hmm. te suuf bu baax la boo xam ne loo fa def. Euh, lu am kon nag euh, reforestation bi projet la euh, je pense que ñoom ñàkkul jóngi ci ñu dégtal leen nag lii di continuer waxtaan wi. bi di ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jonn ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement. ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadj Moussa Thiam. jërë ngeen jëf euh, ci ànd bi ngeen ànd ak euh, seen rajo Sud FM ñu daal di kon ni jël bokk yi bëgg bokk ci waxtaan bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum El Hadj Moussa Thiam. salaam sëñ Souleymane. waaw man la Souleymane di waa Paris ñu ngi seen di la.

espérance de vie voilà. oui. Mhm. parce que booy vivre si environnement bu. lépp waaw si si si loolu la tënk. Euh, voilà da ay feebar la te feebar yi moom xam nañ foo ñu mujj. Mhm. parce que environnement boo ko déggee mooy pratiquement mooy bon ça englobe tout mhm. mooy lu ñuy nooy lu ñuy lekk lu ñuy naan. lépp ko mais man fi ma koy nattee mooy suñu cadre de vie. cadre de vie mooy xam li xam ni moom mooy suñu dëkkuwaan yi. mooy suñu entre mooy suñu kër yi suñu suñu mbedd yi. waaw donc suñu cadre de vie dafa dégradé wu. Mhm. totalement. Mhm. di ko c'est dans toutes les villes. tu vois man ma def benn digression bu daw. boobu mhm. xam nga taay ñu ngi wax affaire élection euh, locale yi. bu la amee solo parce que élection locale yi maire yi ngay fal dafa am importance parce que ñoom décision bu ñu jël dafay am impact direct sur sa dundin. moo tax nit ñi war a toog parce que élection locale dafa am solo am na solo comme élection présidentielle yi. parce que maire bu décidé defar ay cantine bu décidé defar ay tëli sa gox. Mhm. kooku day am impact direct ci yow. kooku day influence cadre de vie parce que cadre de vie dëkk. Mhm. maire moo ko yor pratiquement. oui. Mhm. le maire qui en est responsable kooku du affaire président du affaire kii ah, bi moo jël ay décision ànd ak population bi gars defar koñ yi defar dëkkuwaay yi loolu dong donc boo xoolee suñu cadre de vie au Sénégal tey tey tey man yaakaar naa maire Sénégal yëpp dañu war wàcce ñoom ñëpp war wàcce waay seen liggéey <laughs> hmm. non parce que cadre de vie mooy élément bu njëkk bi xam ne maire moom lañ ko sos mm-hmm. mais boo xoolee Sénégal nu mel muy Dakar ci région yi mm-hmm. cadre de vie yëpp xoolal suñu dëkkuwaay yém ñu mel sa suñu mm-hmm. dëkkuwaay dëgg la regarde comment on habite comment on vit ah koñ yi mbedd yi mais xoolal suñu mbedd yi rek nu mel ah. ban mbedd moo set Sénégal amul benn mbedd mbedd yi dafa xat dafa salté ah et puis euh, c'est encombré. waay nit ñi amul ci fuñ jaar. nit ñi mhm. mënuñ toog seen kër ba noppalu oto yi fu ñuy jaar ak nit ñi fu ñuy jaar benn la. Mhm. te li ma gën a yërëm Sénégal moom mooy les piétons. mooy ñi dox. Mhm. ñi dox seen soxla parce que mën nga jël ni bon damay dem si boutique bi fii wala damay génn pour dox doxantu ci mais amatoo foo jaar. dégg nga. le trottoir est occupé léegi nit ñi léegi bu ñu dox si tëlib dox di jëkkante yooyu yëpp suñu yëpp le cadre c'est le cadre de vie ah absolument am na benn aussi mooy raxas oto yi si mbedd bi mm-hmm, waaw nit bu ñu yeewoo li ñu Sénégal amul ndox ñu naan si àll bi amul ndox bu ñu naan mais da gis ku yeewu buntu këram jël branché rakkolam jël di verse au moins trente litres pour raxas otom rek ndox mi di walangaan si mbedd bi partout dem si voisin bi yooyu déjà jullit mënoo yor sa buntu kër nga tilimal ko ndox mi wala ngaan dem ci buntu kër jàmbur et puis ki xam dëkkul si koñ bi jaar foofu yaram bi yar tàllami di tooy kooku dañ ko war a interdire kooku mairie yi ñoo ko war a interdire mhm. nit ñi l'eau est une ressource ci ci manque dans le monde am na ci amum ndox bu ñu naan mhm. dañu war a interdire raxas oto sa buntu kër mhm. en plus nawet baa ngi ñëw gis ngeen suñu koñe ni mu mel ni mu salte tey yow dama jël ay centaine d'eau tilimal mbedd bi loolu mooy fu ñu ko teg. nit ñi amul sax ndox bu ñu naan mairie yi nag ñoo war a jóg interdire loolu. Mhm. ba pare jël ay endroit parce que boo interdire leen. dafa am loo fa teg. absolument. Mhm. dem ci àll def ay machine pour raxas oto bu la nga raxas oto yow sa bopp. Mhm. bu la neexee nga jox benn booy mu raxasal la oto bi. def fa ay aspirateur pour nga mën aspirer sa oto. def ay endroit bu mën a gonfler ses pneus. Mhm. def sax ay station d'essence yooyu yëpp day mën créer ay emploi ci dëkk. Mhm, mhm. ñu améliorer suñu environnement parce que environnement bi aussi ñun habitants yi. waaw ñu ngi lay dégg waaw ñun habitants yi. aussi. dañ si war a participer. absolument oui. parce que yeewu le matin di tilimal mbedd bi. kooku du ci état bi du ci mairie bi yow aussi si nga bokk. absolument oui da ñu bàyyi affaire salte yooyu def. absolument environnement bi am na benn ministre bu proposé woon ni bu ñu yeewoo ñëppay jënd légume. waaw ñëppay jënd ay kii mais pourquoi kër yi mënuñu si aménager espace ndaw di fa jëmbat ay garab. xam mhm. na benn ministre pro proposé woon fii. oui ah donc ñun aussi dañu bàyyi suñu loxo ci participation environnement bi. Mhm, mhm. beneen exemple lay jox am na benn jour fii benn année fii y' a pas longtemps. dañu décidé woon ni. président moo ko décidé tous les dimanches ma di premier dimanche de chaque mois. pour ah, waaw cleaning day waaw waaw déggatuñ ko de. <laughs> waaw foog moo mujj. waaw déggatuñ ko de. waaw ah, xool nañ ko dañuy raxas mat. balay ñoo damm wala peel wala kii ah wala. mais kooku <laughs> tous les dimanches. oui oui oui oui. ah kooku mhm, fu vrai mais mais dafa mel ni kon Sénégal dañuy ay effet d'annonce def dara mais après le suivi toujours mooy poser le problème. état bi am na ci responsabilité mais ñun population am na ci responsabilité. oui voilà te ñun daal gis nga su cadre de vie dafa am solo ci doomu aadama. dëgg la waaw. Mhm. dégg nga mooy sa gox fi nga dëkk sa koñ. Mhm. xoolal suñu koñ réew mi rek mu sax. Mhm. ah da ngay yow bedd bi xale yi amul. non mais franchement aménagement du territoire zéro. xoolal ci bedd yi boo rombee xale yi ngay gis si bedd bi ñuy fubal amul sax fu ñu fubalee. waxtu yi dàqante mais. donc suñu cadre de vie dañ koy nattee suñu environnement duñ koy gérer Sénégal. amoon nañu benn ministère xaw ma lan laa mu tudd xaw ma renouveau urbain et du cadre de vie. oui mhm. waaw donc cadre de vie bi yaakaar naa disparaître na ah. oui oui <laughs> <laughs> amatul xam naa donc ñun de ba la yàlla yàlla environnement immédiat. mooy mhm. suñu cadre de vie. léegi si urbanisme la ñu ko yàlla environnement lointain. Mhm. mooy suñu géej yeeg euh, ak euh, air bi. mooy suñu végétation bi. kooku bon effectivement c'est kooku c'est am nañ ci influence. dëgg la aussi kooku bon yàlla moo ko gérer aussi quoi. que ça mhm. c'est le lu ñu lu ñu wër directement immédiatement mooy suñu cadre bi kooku ñun. Mhm. on est responsable. Mhm. te man foofu lay interpellé Sénégalais yi yenn yi dañ ko war a bàyyi. raxas sa oto yi seen mbedd yi dañ ko war a bàyyi. dégg nga nawet bi ñëw na déjà lu muy taw rek doy na sëkk. dëgg la. donc vraiment damay invité les maires là ñu jël décision si yooyu interdire ko ku bëgg a raxas oto nga yóbbu fu ñu koy raxas. dëgg la mhm. ça va créer des emplois. Mhm. très bien bu ko tous les matins ngay yow ci mbedd bi yow bu fekkee tu es jeune mën mais maire bu màggal wala père bu màggal wala un aveugle la ah day ñëw dugg ci parce que amul fu mu jaar. absolument waaw Moussa donc nañu jël en charge suñu cadre de vie et puis ñu dem très bien Moussa merci beaucoup. Euh, kon ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ku baax na nga def. allo. allo oui. waaw ñu ngi lay dégg ku baax. waaw man de damaa bëgg participer ci émission bi. waaw tur bi fu ñu woowee. Euh, monsieur Diack Dakar. monsieur Diack bisimilah. waa affaire environnement bi ngeen waxtaanee. waaw man de yaakaar naa solo bi mu am. Mm-hmm. vraiment ñu ëpp ci Sénégalais yi dañ koo xamul. Mm-hmm. parce que man mi la wax informaticien la waaw mais yàlla dafa def ma bëgg affaire environnement. oui donc bëri na association yu ma bokk. Mm-hmm. yoo xam ne ci loolu la ñuy yëngatu ñii ci ci wàññi déchets yi ñii ci reboisement ñii ci améliorer cadre de vie. Hmm? mais man gis nga li ma ci jàngat. environnement tey euh, boo ko booleeg secteur agriculture bien sûr li mu mën a génn ci emploi kenn xamul nu mu toll. dëgg la dëgg la. Mhm. beneen beneen problème mu Sénégal tey bu mag a mag. Mhm. boo xam ne laal na fépp mooy le fait que ñëpp yi euh, ak kii yi ñëw Dakar. oui alors buñ de buñ buñ defaroon environnement. Mhm. buñ jàppalee secteur environnement ñu bëri dinañ mën a delluwaat. delluwaat ci seen seen terroir. Ah. mais nag loolu rek lañ soxla ndax mooy ndox. am na ñoo xam oui hmm? l'accès à l'eau am na ñoo xam tamit problème mu wàllum set la problème mu parce que hmm. pour dire vrai am na ñoo xam seen dëkk am na ndox am nañ suuf. Hmm. mais ñu bàyyi ko fa ñëw Dakar. ah. oui man exemple bi may jox man man dëkk bu naan Ngaye Mekhe laa yaroo. ah d'accord. quartier bu naan Bambara. mais su ma fàttali bi ñu nekkee xale ñun dañuy daan wax ñun ñun suñ koñ maanaam quartier bi ñu dëkk arbre fruitier mënu faa sax. mais su ma la nee en 2015 lañ créé projet de reboisement ak bi ñu waxtaan ak mag ñi dëkk foofu ñu leen liggéey ci affaire environnement parce que mhm. dëkk àll bi lañ bëggoon reboiser ndax ñu yàqu yooyu ñu ne ñu non bu leen def loolu mhm. du am njariñ mais da ngeen ci kër yi uh-huh. donc ñu def ko arbre fruitier waaw mais su ma nee la raar na tey kër guy dugg Mbambara dafay ko fa arbre fruitier te buñ mhm. ñoo ko fa def ginnaaw yàlla nan la def mooy chaque année donc loolu tamit may lancer un appel mais li tax li tax ñu am taux de bu baax tamit. xam nga mooy lan. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, yenn collectivités yu bari ni ñuy def baaxul maanaam doo ñëw rek xëy benn jour rek reboiser dem sa yoon déedéet. ñu dañu mm-hmm. sensibiliser maison yi d'abord. ci njariñu garab ak ni ñu ko war a toppatoo. après bu ñëwee reboiser lan def suivi ba alhamdulilah tey bëri kër yoo xam soo fa demee ñii am nañ mango ñii am limon ñii am lii ñii am lii. mais loolu am solo la initiative yi am solo la. a <laughs> d'accord amul ah, accompagnement ah, suivi par. Le... Euh, non non ah. non da ngay waaru. Mhm. on on s'est vraiment débattu on est très très seul dans ce ñu ni ñëpp. Mhm. très peu de gens ngay ngay gis participer. te initiative la boo xamante ne bu doxoon. Euh, non seulement day day contribuer ci améliorer cadre de vie. Mhm. mais insécurité alimentaire de ciy jouer. parce la tey kër goo xam ni am nga am nga ñaari mango am limon. am banana am goyave su côté. mais loolu day am lu muy joué. Mmh, dëgg la mais mais justement yow yaa ngi ci wàllu informatique te ñu ngi wax tamit ci déchets électroniques yi lu mu mën a indi impact sur euh, l' mais est foofu yéen a ngi ciy gëstu ci ni ngeen euh, maanaam yéen. ci ci kër yooyu bien bien sûr bien sûr am na benn jeune entrepreneur sénégalais bu ci créer entreprise. c' à dire lépp luy déchet électronique boo ko indilee. waaw. moom da koy recycler waat de bonne manière yenn yi mu dugalaat leen ci circuit bi pour éviter les les les déchets yeneen yi. Mmh. da lay waaw. donc yooyu yëpp am na solo mais problème bi jeunes yi monté genre initiative yëpp ils sont très seuls donc da ngay da ngay def yu ne investir sa xaalis def lu ne mais mais c'est trop seul dans le combat. dëgg la. loolooy loolooy dommage bi quoi léegi leneen li may wax tamit. Mhm. mooy benn jàngat bu ma def gis nga tey bëri na village yu ne Sénégal yoo xam ni. Mhm. Euh, li ñuy woowee agroécologie parce que ñu ngi wax euh, développement ak yooyu di jël secteur yu bëri uh-huh. euh, boo xam ne am na tool yu yaatu mais amul mais kooku tey il suffit ay bailleurs ñëw wala ay ay partenaires yoo xam mën nañoo ne ay sénégalais. Mhm. jàppale ko. Mhm. ñu créé forage mais ñuy ñuy reboiser àll bi di ay arbres fruitiers ay mango. Uh-huh. nga xamante ni d'ici cinq ans six ans mu commencé doon une production à grande échelle. Mhm. donc agroécologie boobu am am na solo trop ah am na benn genre projet bu noonu bu ma gis Cameroun ak Côte d'Ivoire ñoom li ñuy def. Uh-huh. mooy dañuy ñëw tey ci dëkk boo xam ne am na espace uh-huh. a bokk da léegi bu nombre de personnes yu bëri xaalis boobu ñu cotiser mën nañu jël say ah. si ay nit ñoo xam ne dañuy reboiser àll bi yëpp nag mm-hmm. léegi yenn saa yi mën nañoo reboiser sax ay ay ay ay arbre yoo xam ne mm-hmm. dix ans après dañ koy dañ def ko bois mm-hmm. ñuy def ay manguier ñuy def ay cocotier finalement avantage mooy àll bi yëpp dañ koy reboiser et mu doon derrière un projet économique xam nga yooyu yëpp ay initiative la mais mais souvent da nga koy lancer mais ci trop seul léegi beneen remarque bu ma def tamit mooy garab garab aussi nit dañuy dagg di dem rek alors que on doit reboiser. waaw reboisement nag bu dee ñëpp dañuy état. te mhm. état tamit def day day des bon après on on va on un drame ah. alors que man initiative bii ma la wax tey lu simple la. par mhm. exemple chaque quartier jeunes yi lañ mobiliser wu. Mhm. surtout dans les régions parce que Dakar amul espace. mais dans les régions jeunes yi nañ mobiliser ñu cotiser même ñii bu dee dañuy def cinq mille ñuy dix li ñu jëndee ko ay ay pépinière waaw ko dans les maisons absolument bu kër yi demee bu bëri ay garab mhm. après ñu jël buntu kër yi après nag ñu mën a dem ci àll bi dëgg la waaw donc man daal loolu loolu moo nekkoon sama message di di di lancer un appel vraiment képp ku citoyen jërëjëf waaw nga jàpp ci améliorer cadre de vie bon. waaw surtout réduction des déchets. Mm-hmm. waaw surtout parce que loolu aussi dama ciy gëstu lu bari mais mais ce qui est recommandé mooy recyclage ak yooyu baax na mais li gën mooy éviter même les déchets. waaw ah. donc mbuus yi mbuus yi par exemple. waaw du état génn na loi tere na ko. mais pourtant mbuus ngi circulé. waaw <laughs> <laughs> man nag li ma jàpp li manqué Sénégal xam nga mooy lan mooy formation. Uh-huh. te te loolu tamit doon na baax médias yi médias yi jàppale si mooy mooy gis Euh, waroo def foo dem rek ñu jox la mbuus nga jël. mais yéen ñi booy dem yóbbaale sa lekket yéen ñi yóbbaale sa kaas. comprendre nga li mhm. defal li ngay jënd foofu nga xam ne soxla woo mbuus. waaw wala benn loo xam ne juróomi mbuus la nekk nga dajale ko ci benn mbuus. c'est ça wala nga wut ay mbuus réutilisable am na loo xam ne la saa boo demee nga fóoraat gis nga genre message yooyu. man damay lancer appel même artistes yi. Mhm. artistes yi joué ay théâtre yooyu am nañ ci responsabilité ñooñu nañ def ay ay ay ay ay kii. Mhm. ay ay mise en scène dans ce sens. oui dëgg la bu ko defee même seen théâtre ñu orienté ko. ci mhm. amélioration cadre de vie gestion de l'environnement ainsi de suite. Hmm? Mhm, te te gis nga xaw ma euh, maa euh, maa ngi ñaan benn médecin mu dugg intervenir mais gis nga su médecin duggoon ba wax la tey euh, mbuus yi. waaw ak dagg garab yi ak yàq bi ñu yàq environnement li ñu yàq ci santé Sénégal. yow yo ci sa bopp da ngay tiit. dëgg la dëgg la donc bu ñu amélioré cadre de vie ak suñu environnement. non mhm. seulement day wa day wàññi suñuy maladies. waaw ah, mhm. def ñun ñu gën a ñu a dund de manière saine. et après tout le monde y gagne. dëgg la de wallaay wallaay de. waaw loolu tamit école yi tamit. il faut mhm. ñu agir parce que école yi man maa ngi fàttali bi ñu nekk xale. suñu benn directeur dañu daan jàngal ni ñuy defaree ay pépinière. Hmm? tey jii école yi euh, euh, on a des millions de d'élèves mais nañ leen dugal ci circuit bi école am na solo te loolu ça ça ça aura un réel impact après. dëgg la dëgg la dëgg la. waaw loolu daal laa la la la. non jërëjëf kontaan nañ bu baax si intervention bi ndax ci nag euh, moom tamit wax na fi xalaat euh, ak tamit euh, gis-gis bu am solo. seen rajo Sud FM quatre-vingt-dix-huit point cinq ñoo ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ni ñoo ngi bëgg bokk waaye ñu xaar rek ñi nga xam te bëgg nañoo bokk ci waxtaan bi te ñu waxtaanee rek li jëm ci wàllu na ñu war a yore alam bi dëgg la ñu ngi wax tamit <laughs> ay phénomène changement climatique yooyu yëpp tamit mu doon yoo xam ni daanaka daal mën nañ di jeexital yu mucc yoo xam ni daal yu jéggi dayoo ci askan wi waaye tamit nguur gi yan taxaw la ci war a taxaw ci ci fano gis nga sax léeg léegi ñu ne avancé de la mer ci gox yële ñu ne léeg-léeg tamit naam bu nekkee digue de protection ñoo ngi koy def ak yooyu yëpp pour dimbali euh, nit ñi waaye tamit teewut du ñàkk euh, yenn spécialiste tamit gën ñoo baaxee ci ci ci xalaat ak tamit ci xam-xam euh, ci fànn woowu ñoom tamit nu ñu war a taxawoo ngir rek joyanti li nga xam ni moo di politique environnement gis nga sax ñooy ñoo ngi doon évoqué problème bu mbuus yi dëgg la tere nañ ko loi la waaye nag teewut ba tey ñoo ngi koy gis ci mbedd yi ak yeneen ak yeneen gis nga euh, lu mu mën a indi ci euh, jafe-jafe yooyu yëpp euh, c'est vrai que ku ngi génn léegi am na lu am solo li jëm ci wàllu recyclage yeeg yooyu yëpp baax na sax waaye nag la ñuy recycler bañ daal ñu wàññi tamit kii ba na gën a bëri moo gën que ni ñuy continuer di recycler moom jàpp ni daal recycler sax ni daanaka war nañ fa war nañ fa bañ a egg su nekkee géré nañu mbir moom ñu jël am na ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum euh, sëñ bi ñu ngi leen nuyu sëñ Maar. siyaar naa la El Hadj Moussa. waaw naka liggéey bi. <laughs> sant bu wér a wér. góorgóorlu mhm. alhamdulilah di rafetlu émission bi. jërëjëf. di sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw yow di environnementaliste nga yow. waaw <laughs> man de environnementaliste laa donc di ci yëngatu aussi. Mhm. kuréel gu ñuy wax alliance des écologistes du Sénégal. oui donc di rafetlu vraiment liggéey bi Sud FM di def. Mhm. jaarle ko aussi di ci gërëmaale toute la presse parce que actuellement nii ñun dañu war a sant yàlla parce que li gën a am solo moom mooy. Mhm. médias yi ñoo ngi joué rôle boo nga xamante ni bokk na ci liy conscientiser la population même si waaw même si les écologistes. Mhm. yàgg nañu nekk vraiment avant-garde donc di wax ci lii nga xamante ni moom mooy problème environnement. c'est vrai euh, problème bi nag. Mhm. gën a am solo moom mooy. sax dem nañu ba rendre compte que ni ñu téye suñu environnement du bi nga xamante ni moom moo gën ci wàllu téye ci domaine yépp nag. yu waaw. allez-y domaine yëpp nag. te mhm. tey jii danger bi gën a ngande. Mhm. moo xamante ni Sénégal moom lay rencontré moom mooy ñun Sénégalais ñun suñu wàllu bopp waaw. donc. Mhm. danger bi gën a ngande boobu la. environnement nag lépp loo ci def lu baax. mu delloo la ko. lépp loo ci def lu bon aussi mu delloo la ko. te sa borom wàccoon nag ñun. Mm-hmm. jox nañu ay ressources naturelles ba mu ñu sant yàlla mm-hmm. jox nañu ndox jox nañu suuf jox nañu jàmm li ci des nag mm-hmm. moom mooy ñu produire pour développer tout en sachant nan la ñuy garder suñu environnement parce que li gën a bon ci en ci enjeu mooy nga nekk su pays su développé ba pare sa environnement ñoŋul te ñun loolu moom moo ñu dal actuellement nii koo ci gis nag ñu ngi toog di rejeter la responsabilité. état am na ci rôle. bu mhm. war a jouer responsabilité. ñun population am nañ ci responsabilité yoo xamante ni war nañ ko jouer. parce mhm. que démb la ñu la journée mondiale de l' environnement. restaurer les écosystèmes. Mhm. donc bu ñu tourner. gisaat tey ñu déclassé cent cinquante hectares. Mhm. quel que soit fa même bu fekkoon benn garab fa nekk tey ji loolu day porter atteinte environnement. ñooñu mhm. wax phénomène changement climatique. Mhm. adduna bi yëpp bu doon ay caaxaan tey ji adduna bi yëpp duñ ci daje di ci def effort yi ñu ci def yëpp. te chaque jour tey ku ko wedd boo demee tey Gendar wala nga dem ci dëkku ñu mel ni Joal dem Palmarin da xam ni lii nit ñaa ngi koy dund. suñu géej gi ressources yi ji boo xoolee wàllu mbalit nan ngay gisee. état aussi def effort. oui ba teg li nga xamante ni moom mooy caniveau. Mhm. tëj ko citoyen jóge fële daal di jël couvert bi sàcc. dem jaayee ko feeraat. wallaay. Mhm. mais comportement boobu nan lañ ko mën a toogee di ko seetaan. oui nga toog nit di dagg garab. Mhm. pour def mat. te su xamoon ni garab googu ba mu fay nekk booba moom waxuma sax moom mais ay waajuram sax am na ñoo xamante ne xëy na juddu wuñu. donc environnement euh, sëñ lépp loo ci def. dala koy delluwaat li ci am solo ba am solo moom mooy na ñun ñëpp ñu taxaw mhm. ñu xam ne kat alam gi buñ ko sàmmul waxuma la sax ñun mais dañuy dem ba Sénégal mhm. fépp a dugg par nos propres déchets te loolu day am impact directement ci suñu santé mm, dëgg la mhm. tey chaque année ñoo ngi wax affaire inondation affaire changement climatique ñu ngi ciy joué li ci ëpp moom mooy da jël mbuus nga sànni ma jël mbuus sànni keneen ak keneen jël mbuus sànni te rôle suuf premier rôle suuf moom Mhm. ba àdduna sosoo ba tey dara manqué wu ci dara ci mhm. bu fekkee ndox moom dafa war a wàcc dem ci biir suuf nga jël mbuus teg ko fa mhm. matt la matt sama doom après xaalis ba nga liggéeyoon di ko sakkanal yaa ngi koy yóbbuwaat ci sànq donc c' est un tout lié. c' est ñoo ngi lay wax wàllu géej. bu ñu jógee ci wàllu géej sax fa. ñoo ngi lay wax wàllu xar Sénégal ñun depuis ñu judd ba tey jii. xoolal xaru Burkina lañ lay wax. xaru Mali la wax xaru Mauritanie yooyu. dëgg la te war nañu am système bi nga xamante ni. Mhm. war nañu mën a toog ñoŋal. waaw nan la ñuy sàmmee. Mhm. xool nan la ñuy toogee à un moment donné aussi. réservé mu leneen tabaski bu ñëwee ñun ñëpp kenn du ci sonn. absolument wàllu géej. Mhm. Sénégal ak euh, pratiquement Mauritanie ñoo bokk presque la dynamique marine. oui bu ñu demee ba Mauritanie di am jën ñun mënuñoo fexe ba am benn toq jën. suñu mool yi di dem. te ñu war a observer li nga xamante ni moom mooy euh, phénomène repos biologique. biologique bi bu ñu ko waaw mais. noonu da ngay def nii. parce que mhm. la am bu fekkee yow fonkoo ko day jeex nga dem ci feneen indiwaat nag ay problème beneen problème bu xoolal suñu àll ji mel ni Casamance. Mhm. Gambie tey ji amul tey nu mu tuddati réserve forestière. Gambie bokk na ci pays yi nga xamante ni ñoom ñoo ëpp ñii li ñuy exploité ci wàllu bois. Mhm. mais ce qui veut dire que c' vrai que état baa ngi ciy def ay effort nit ñaa ngi dem. mais tey le mal bu tey am na sama benn professeur Djibi Diakhaté sociologue. oui am na ko yàlla may wér ko. waay nee Mhm. ak bu calfe bu ko jaralee borom calfe kon calfe du dem environnement ñun ñoo ko moom te tey balaa état di ñëw di intervenir ñun la population sénégalaise ñun ñoo war a mën a taxaw ñoŋal suñu environnement te nag problème bi toll na fenn foo nga ni il faut que ñun ñëpp ñu ñëw taxaw vraiment mhm. lëkkaloo mën a mhm. doo umay mën a defaraat suñu environnement. dëgg la daal ngi woote. yaa ngi doon wax ci ci ci maanaam euh, lii euh, di hectare maanaam bande de filaos yi ndaxte nag. Euh, ba keroog sax dégg na jot nañ ci waxtaan ci li nga xam ne moo di rôle lii di maanaam filao taxawaayam lan la si si si si si si dunes yi. gis nga filao li hmm. gën a am solo mooy day fixer ay dunes. man mhm. tey jii zone boobu noonu mhm. tey su ma amoon xaalis du ma dem dëkk fi ndax affaire changement climatique ngi ñëw ak li ñuy wax nu mu tuddee ci euh, géej gi nga xamante ni moom mooy yokk mhm. yàgg mi day fekk si waat foofu fi laa woo nag rôle am premier moom mooy nga te li nga xamante ni moom mooy fixer ay dunes di la protéger contre élévation du niveau marin bu fa dunee nekkatul àla kulli xalin loolu day ñëw am tey képp kiy dagg garab na xam ni dagg ko pour moom mais mi ngi koy dagg ndax investissement ba mu fay def tey ji bu ni dañ ko multiplier par trois quatre. Mhm. pour mën a soit nga protéger loolu parce que tey boo demee Gendar gis nga. waaw nit ñi dëkk. mais l' est en train de dépasser des milliards. Mhm. des milliards pour pouvoir protéger. Mhm. donc tey li nga xamante ni zone de tampon la muy bande. tampon loolu buñ ko jëlul ñu ñu toti renforcer ko bu ko kenn takk c'est vrai am na ñoo xamante ni nañu ci seen niveau de vie niveau de maturité parce que garab am na foo xamante ni bu fa tolloo mhm. mën nga ko jël nga takk ko mais nga restaurer waat à bi di def nga ñëw di gën a dagg mhm. day a yokk joote donc c'est des choses yi nga xamante ni ñun suñu wàllu bopp ñoo war a xam mhm. phénomène environnement cinq cent cinquante kilomètres carrés la Ndakaaru am Ndakaaru moo gën a tuuti ci Sénégal mais boo xoolee phénomène bi nga xamante ni moom mooy ni population bi di yokkoo. ni interaction yi di yokkoo. ni mm-hmm. oto yi di yokkoo. Mm-hmm. pollution automobile man chaque fois dama koy wax sama entourage. gars mm-hmm. di ma reetaan. waaw mais nee naa leen ni nit ñi deewee Sénégal sëñ Moussa. waaw loo xamante ni normal ñu ñëpp ay jullit lañu. dëgg la xam ne ni sama borom moom mooy faat. tey quelque part ci wàllu environnement bu ñu xoolee Moussa da nekk jeune. bien important. oui pour ne tuuti ñun la faatu na. ñu jàpp a normalul mhm. chaque jour ñun la maladie mystérieuse waaw dem bu ma nga woon fa de Joal mhm. mais bi ngay xoolee yenn borom xam-xam yi dañ ne ci wàllu environnement la jógee mhm. ndax tey foo teg ay mbalit ay bactéries dañ fay développé ñëw dellusi waat ci ñun nga jël ko ci wàllu pollution jël ko ci wàllu nuisance xoola tey fu ñuy wax ay baie de Hann waaw mais tey alal jooju ñu fay kii parce que les gens ont laissé faire une situation bi nga xamante ni àgg na ci loo nga xamante ni gouvernement bu ñëw day hérité problème bi c'est des milliards et des milliards jël tey mu dem ci wàllu du régime bi moom ak def mais yàgg na c'est un problème qui date de depuis longtemps. oui mais tey loolu lépp bu ñu koy seetaanee day àgg ci benn point de non retour boo nga xamante ni Moussa. Mhm. kenn mënul lu Moussa ko wax ba impact yi du dellu si waat ci ñun. absolument te nasaraan si nag sérieusement amuñu ñeenti tànk amuñu ñeenti loxo. Mhm. affaire mbalit da def système de tri à la base. tey ñun li ëpp ci suñu mbalit Moussa. booy xoolee xool mbalit. Mhm. xeer moo ci nekk ak suuf. mais boo jëlee xeer nga teg fële jël suuf teg fële jël li nga xamante moom mooy déchet organique nga teg ko fële mais loolu mën nga ko def nga def ko engrais mhm. ñun sans borom wàccu nag ñun Moussa coxi lépp mhm. mais tey même ba ci wàllu ressource nit ñi nga xamante ni ñoom ñooy nasaraan si li ñuy naxee leen la dañ naan la l'Afrique est le continent de demain mhm. le continent de demain tout en continuant jël suñu ay ressources di ko yóbbu ñoom di dem di ñoŋol di def ay bénéfice waaw pendant ce temps là ñu ñoo ngi toog mm-hmm. tant que ñun suñu pays africain yi bàyyiwuñu di jël ressources naturelles yi jële ko ci mine yi mm-hmm. di ko yóbbu port wala jële ko ci mine di ko yóbbu aéroport duñu mës a développé absolument da koy jële ci mine mm-hmm. yóbbu ko ci industrie mu transformer ko nit ñi mën a ñoŋ doomu aadama am liggéey loolu lépp mu ñoŋ mais ñoo ngi toog di seetaan ressources yi li ñu sans defal Afrique amul kenn ku mu ko defal ci kaw suuf jërëjëf ci wàllu ressource wàccoon nag ñun mhm. jox nañu ndox jox nañu suuf mhm. boo demee tey nit ñaa ngi wax affaire vallée fossile la wax nu mu tuddee yeneen boo demee ndar li fay nekk ci ndox mu neex di wàcc ci géej kenn xamul mhm. c'est des milliards de mètres cubes te adduna bi bu nee nañ kenn ñaan ko yàlla troisième guerre mondiale bu doon am tey ci wàllu ci ndox lay jógee ñuy seetaan des milliards et milliards de mètres cubes absolument mënuñu ci def dara autosuffisance tey jii ndox moom gën nañ ko ñoŋal. oui passé nañu fii. très bien sam borom wàccoon na ak ñun. tubaab bi hmm. ñeenti tànk amuñu ñeenti loxo. ñaari tànk la am ak ñaari loxo lan la ëppalee mooy organisation. oui. bu defee rôle am. Hmm. citoyen def rôle am. de la participation et du contrôle citoyen. Hmm. kon suñu dëkk yi mën naa ñëw. fois nag dañuy rejeter la responsabilité mais ñun. fi ñu toll nii am nañu responsabilité bi nga xamante ni amuñu droit. Mhm. bàyyi ji di wéy. nit ñi ñëpp taxaw ñu ñëpp ñoo ngi woote di santaat yàlla encore di leen santaat presse bi ndax affaire environnement bi ci ëpp. Mhm. affaire changement de comportement la. dëgg changement de comportement di nga wax wàllu information wàllu sensibilisation ak wàllu communication. très jërëjëf loolu ku ko wax rek. Mhm. wax rôle lu média ñoo ngi ñaan yàlla mhm. état bi ñu renforcer waat encore une fois les médias. Mhm. tegal ay programme éducation environnementale teg communication teg affaire sensibilisation pour que nit ñi mën a xam dëgg dëgg importance. dëgg la parce que am na ñoo xamante ni ba ñu ñu changé. waaw pour nit ki bu fekkee changement bi ñu koy woo. ñu ngi ciy gis njëriñam rek bu ñu ko ko expliquer bu leeral dina xam. dina ñëw li muy def ngi leen di gërëm di sant ci defal. jërëjëf jërëjëf euh, Baye Salamar waaw kon nag euh, jiite li nga xam ne moo di alliance des écologistes waaw di expert euh, donc environnementaliste ci intervention boobu ndaxte waaw laal na ci phénomène yu bëri kon nag ñu continuer jël mbokk yi ci ligne bi ci. allo asalaamaaleykum. waaw kon nag jàpp waaw kon nag laal na <laughs> aspect yu bëri yu am ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu alam bi asalaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Moussa na ngeen def. ñu ngi sant yàlla ngi waxtaan lu am solo tey. jërëjëf. waaw comme d'habitude. yaa kooku. waaw di waxtaanee si li nga xam ne mooy agression yi nga xam ne moo nekk ci biir dëkk ba. Mhm. di agressé garab yi. agressé li nga xam ne moom mooy environnement bi. Mhm. fépp fu seen bët xaj. yaakaar nañ ne war nañ ko mun a autoriser ba nit war faa mun a dëkk. gis nga. fàttali ñu tur bi waa jooju gé Moustapha. Moustapha. Hmm. Diagne. Hmm. gis nga affaire yu affaire yu li nga xam ne mooy affaire suuf. Hmm. ñun Sénégal dañ ko organiser bu bon. ba ñu tiit ci suñuy génération yu doom ak suñuy génération wu sët. da dul yoon ñu bëgg a def Iran Irak ci suñu biir dëkk. Mhm. c'est-à-dire. Iran Irak mooy lan dañoo supp kànja suñu dëkk fu toll nii. ah déet waay. <laughs> waaw. Mhm. te ku jënd yaa moom. chinois bu fa ñëw ñu jaay la hectare yaa ko moom. naaru marocain bu fa ñëw ñu jaay la hectare yaa ko moom mhm. képp kuñ fa jaay ay hectare wala ñu jaay la fa un mètre carré yow yaa ko moom te mhm. góoma de mhm. kon ñu ngi fay emprunté benn affaire bi nga xam ne dans l'avenir xamuñu sax la jëm gis nga ñuy yor seen jaas yi génn ci dëkk bi di agressé ñooñu la ñu mun a yuuxu ne ay agresseur lanu ay sàcc lanu waaye ñi nga xam ne ñu ngi agressé li nga xam ne moom filaawo yi xoolal xam nga filaawo yi yaa ngi demandé léegi lan mooy njëriñu filaawo mhm. ñun ñu ngi dëkkoon géejawaay ci filaawo mu amoon premier géejawa mu amoon na ah, ah, premier filaawo deuxième filaawo tournal ba mhm. dem ba ay filaawo yi nga xam ne mhm. ba Malika. Mhm. romb ko sax. romb Malika yi dem. wallaay. tubaab bi dafa sérieux woon civilisé xam lan mooy environnement ci jamono jooju noonu. dëgg la ñun koy dem nañ fa yàgg nañ fa dem di rëbbi lapin wallaay ndeysaan. merci. gis nga filawoo. Mhm. moom moo daan récupérer li géej gi dégagé. dëgg la gis nga même filao mhm. bu tàngal laal ni ci filao bu boo xoolee sa loxoo léegi dafay mel dafa am cher mhm. gone xaw xam nga li ma yaa xam dét la waaw mhm. nga jóge ci filao yi mu amaatoon beneen affaire bi nga xam ne moom moo nekkoon avant ngay yegg ci tëli bi xam nga mooy lan ay montagne waaw noonu la meloon montagne yooyu yëpp pour réserver li nga xam ne rek. Mhm. mooy fi nit ñi dëkkee. waaw déggoo ma de. maa ngi lay dëkkee. ñu jógeetu foofu noonu romb montagne. Mhm. mu am ay gargamboose. garga. Mhm. gargamboose yi moo daan téye suuf si ba ñëw ci wetu télé bi. yëpp ay tampon la. même même boo leen seetloo woon Garga Mbossé. Mhm. toujours da daan am mel ni da nga koo sëkk. te kenn mhm. sëkk ko ndax bu ñëwee bu sëw si bu ñëwee ba foofu dëgg la waaw. Mhm. nga jóge loolu li nga xam ne moo sosoon direct ci télé bi. ñu defoon fa ay garabu xottu bi teel. nga xam ne boo ko daggee nii boo ko xeeñtoo dafay mel ni parfum loolu moom maa daan. moo doon waay tubaab tubaab moo survivé <laughs> loolu moo daan indi air pur ci biir géejawaay ñu koy noyyi wallaay dëgg la mhm. ñu ñëw agressé lépp ñun waa géejawaay ñu toog foofu noonu Sénégal gépp toog ku nekk naan ah, man sama yoon nekku affaire gouvernement la mhm. xam nga ñun danoo am ay sérieux problème mhm. ndax ñun dañuy fal nit ak ku mu mun a doon ba pare ragal la bu duñ na nongo càmbar wala bu ñu lay càmbar ñu ngi xalaat naan man de bu ma ci duggee mun naa ci am problème ndax samay njaboot. Mhm. nanu bàyyi Iran Irak bi ñuy indi ci biir dëkk ba dëkk ba yëpp dagg nan ko. Mhm. président Macky Sall ba ma njëkkee dégg fii mu ne képp ku am bàyyi wala nga am permis ah, ah, d'occuper. Mhm. mun nañ koo def titre foncier. fa laa commencé fa laa commencé soupçonné de. Mhm. te dëkk bi ñu soupçonné affaire boobu bari na. ñay nag buy xale doom ya tax. Mhm. lan moo tax ñu jékki-jékki ne dañuy def titre foncé. ne te te kuy ñëw di def titre foncé bi doo faj ah. Mhm. loolu ñu déglu ah. gis nga réew kenn du ko yore ci ay détails yi nga xam ne. lu la neex nga def ñun géejawaay ci boppam ñoo gënoon a neex le ci biir Sénégal xaw ma ndax xamoon ngeen ko yéen waa sénégalais yi mhm. xamu leen ko woon mais géejawaay bu mu saana taw ba sabet mhm. booy yi dañuy taxaw di xaar bu sebetee day mel ni kekk mhm. dañuy petit camp grand camp lu ne lu ñuy dugg ñoo gënoon a xàpp ci biir Sénégal léegi ñu ñëw agressé Sénégal ba dégg naa temps yi lu ñu mujjee dagg foofu noonu ñu ne xaw ma magistrat yi lañ koy jox affaire yu mel noonu. Mhm. ah yi bu fekkee dañoo bëgg ay kër gi terrain ñu mun nañ koo am. Mhm. ñu ngi liggéey ñu ngi am seen salaire. waaw dafa mhm. bàyyi ngir yàlla yonent bi li Sénégalais yi moom. oui gis nga même technopole boobu noonu. oui. merci ma daanale foofu. gis nga même technopole boobu noonu. loolu ñu fa def noonu. mais loolu du yoonam. c'est-à-dire dañoo mélanger lu bare bare bare bare gis nga même arène nationale boobu ñuy wax noonu arène nationale boobu boobu du place mhm. ndox dafa am rendez-vous ndox dafa am fu mu war a daje. Mhm. bu dajewul fu mu war a daje rek nekk coono ci yeen mhm. foofu noonu ba jëm dex meew loolu yëpp noonu ba dugg mel ni kuy dem côté Pikine bi noonu yooyu yëpp noonu. dafa nekkoon benn forêt bi nga xam ne si lépp luñ fa waroon a def lu nekk. Mhm. lu ñuy conserver ak lu ñuy réserver li nga xam ne moom mooy suñu environnement la waroon a doon mais pas di ko jéem a def ay arrêt nag. am ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi làqu ci ginnaaw di ci def yeneen yi ci bokkul. Mhm. ak ñeneen ñi ci am ak yenn gis nga ñun Sénégal dañoo am yu toppoo gis nga. <laughs> il faut cooki nag Sénégal gars yi dinañu cooki ay cooki yu sérieux. <laughs> ndax mënuñoo juddoo ci biir senegal ñun ñëpp ñu yorandoo ci biir Sénégal. ñuy ay hectares yi hectares yi hectares. Mhm. ñuy nekk foofu noonu sax waaye ñu dénk leen tey. Mhm. un mois deux mois trois mois maximum. un naa ñu ñëw tabax ay air plus yu kenn xamul. yooyu yëpp si askan bi non gars yi dinañu cooki buñ ko bëggee dinañu cooki buñ ko bëggul dinañu cooki. très ñu bañ a cooki nag. Mhm. nanu bàyyi li nga xam ne moom la askan bi moom. ñu gérer li nga xam ne ñoom loolu lañ leen dénk. Mhm. jàmm na ñooy. mais gis nga géejawaay googu noonu. Mhm. booy géejawaay dootuñu nangu kenn ku fa dagg benn bant. loolu moom désormais hmm. dina am mais mais décret bi ñëw na cent cinquante hectares la ñuy dagg euh, jox ko donc euh, euh, askan wi parce que am na ñu naan pour ay problème d'utilité piblique la yu mel noonu ndax dañ fa war a def ay yu mel noonu am sax ay doomu waaye ne déet lii dafa am leneen lu lalu ci suuf loolu lalu ci suuf nag lu nu bëgg mu leer hmm. c'est que Sénégal ñun tant que yi woddul hmm. buñ ne fii benn néeg la fii tabax. Hmm. ñu tabax fa benn néeg ba point. waaw waa dëkk bi yëpp xam na benn néeg bi la fi tabax. Hmm. waaye benn néeg lañ fii tabax ba pare def dix néeg. neuf néeg yëpp dafa war a daanu. waaw d' accord déggoo ma de. dégg nañ la kay. voilà kon boobu yooyu ñuy jéem a lawal noonu. Hmm. dañ koy lawal c'est parce que ñay buy xàlli bu ne dama ne. ay doomam a tax muy xàlli. ndabal dëgg la. même maire yi ngay gis nii yooyu ñuy def noonu seen affaire yooyu ñuy def noonu di di dagg nii di dagg nii. Hmm. am na yeneen yu nekk ci suuf yi nga xam ne moo tax ñu dagg fu ñu dagg lu ne rek. Hmm. am na lu fa nekk. très bien. bu ñu sonal nit ñi. géejawaay nag duñ ko nangu. jaajëf Moustapha ñoo ngi lay gërëm a sant jërëjëf. voilà jërëjëf seen intervention boobu sëñ Moustapha Diagne ci Géejawaay kon la ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. doo wàññi rajo bi déglul rajo sa bi bu rajo bi waaw. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. El Hadj Moussa naam. Jibril Sène la. Jibril Sène bismillah gën nañ la dégg. maa ngi nii rek maa ngi ci jàmm alhamdulilah nekkoon ci àll bi rek. bisimilah waaw. waaw ndax neex képp nga maa ngi leen di bari. waaw euh, Moussa. naam. mbirum environnement moom xam naa ne problème bu xaw a complexe la fii ci Sénégal. Hmm. parce que xam nga lu yàq réew kenn ku nekk lu sa waay def yow au fond intérieur de toi di nga xam ne jaaduwut waaye comme sa waay la rek da ngay jàpp ne jaadu na te dafa lay jaral nga koy défendre maanaam ba lu mu lay dala koy jaral pour nga défendre que ne ñàkk nekk ci dëgg googu dëgg la loolu bokk na ci lu ñu sonal. Mhm. sonal Moussa. musa mhm. bu dee ci wàllu mbalit mi. Mhm. Sénégal dong ngay gis dëkk boo xam ne Moussa ci biir Dakar di capitale bi. mën ngaa daw dix kilomètres. nga yor ci sa oto loo xam ne naan nga ko ba pare wala lekk nga ko ba pare. Mhm. doo gis benn poubelle boo taxaw pour mën a droité sànni ko fa. waaw. Ah. gis nga fi ay poubelles yu ci ci fii. mais c'est rare. ville place de l'indépendance peut-être. Mhm. place de l'indépendance da nga fay gis poubelle. Mhm. mais ñëwal Pikine. waaw wala Géejawaay wala Maris wala feneen ak feneen. kon daal ci mbedd yi est-ce que di nga gis ay poubelle. déedéet dafa am ku ma am ku ma amul ci wàllu poubelle daal. ñii dañ war a jox poubelle ñii dañ leen war a jox a wax. mu ngi noonu. Hmm. te nag Moussa. Hmm. dafa dafa war a nekk partout. partout oui. beneen bi ci des aussi. Hmm. Moussa Sénégal dong ngay gis bëccëgu ndara kam. oto mbalit. oui dix heures onze heures wala midi. di ñëw ci koñ ci pipi bi xet gi sonal nit ñi mais Moussa oto mbalit kenn ku nekk xam ne ne. c'est entre deux heures du matin ba quatre heures du matin boo demee ci les pays développés. mais doo doo bu dajek oto waaw. heure yooyu la ñuy ñëw def seen liggéey nettoyé mbedd mi raxas tali bi dem seen yoon. waay beneen bi ci des mu gis nga daggum garab yi. Mhm. ci àll bi man ci sama xam-xam bu gàtt. Mhm. jàpp naa ne lenn bokk na ci li koy war a mën a saafara parce que boo xoolee musaa garab gi duñ ko dagg nawet. Mhm. noor bi rek lañ koy dagg. waaw su fekkonte ne fexe nañ ba àll bi. parce àll bi quatre-vingt pour cent waa àll bi Moussa. muy sama mbokk baykat yi trois mois rek la ñuy bay. mais mais le problème sax c'est Djibril Sène c'est pas justement du problème bois de suuf beeg mais am na ñoo xam ne tamit ay gros la lañu dañuy nekk foofu di dagg garab yoo xam ne pour c'est pour autre chose. foofu la loolu waaw mooy dagg bu mag bi <laughs> coupe avisé. bi ay tën beeg. waaw waaw yëpp yooyu problème dañ koy dagg yor seen séeri ci àll bi. voilà c'est mhm. di séer di ko wala di ci liggéey ay di ko mhm. di dagg bo xam nga. dagg garab. Mhm. même bu fekkee da nga am permis. Mhm. du am kenn du joxe permis dagg garab bu tooy. waaw si garab bu dee ba pare. Mhm, lañ lay jox permis pour nga dagg ko. dëgg la absolument mais pas garab bu tooy. absolument beneen bi ci des aussi fan koy daggee c'est rare ngay gis ñuy jëmbataat fa. waaw bi ci topp Moussa ci wàllu garab yi comme ni ma ko waxee. su fekkonte ne xam nga àll bi lu ci ëpp. trois mois la ñuy bay neuf mois yi dañ koy tëdd. àll bi day féex gars yi dugg ci àll bi di dagg def lu leen neex. mais su fekkonte ne fexe nañ def ay ay ay liggéey. ba que àll bi di bay noor di bay nawet. mais Moussa kenn du nangu sa tool wala la den ak sa tool. mais seetaan ko kuy dagg garab yi. même boo ci mënu dara di nga woo eaux et forêt mu ñëw def intervention. absolument beneen bi ci def suuf. ah ci moom la daggee euh, donc. Euh, ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na ku nekk ci ligne bi ci seen émission lu ci xam te ñu waxtaanee ci dëgg la euh, gestion alam bi yaatu na lool <laughs> dëgg la sax euh, dinañ si amaat yeneen jotaay euh, ndaxte nag da ci am solo tamit ñu war ci waxtaanee ci li nga xam ne nag mooy daal li ñu naal ak li ñu naas ci nas tamit ci nguur gi ñu xool tamit loolee ñoom bu nekkee jàpp ni na ñu mën ci mën a waxtaan ci fan woo 88 628 98 98. bisimilah. allo Moussa. Naam. Moussa s'il vous plaît rek trente secondes ma terminer rek. ayca allez-y ñu mel nga daaneel. voilà Moussa suuf mhm. xam nga la moo ñu gën a sonal ñun Sénégal Moussa. Mhm. allo. waaw ñu ngi lay léegi ñu ngi lay dégg. kamoon taxaw nii mooy sama classe gi. <laughs> déedéet waaye Moussa Moussa tout le monde maanaam euh, pour taquiner quoi moo tax. ma wax kamoon taxaw waaw waaw bool bool ngay sandi xeet waaw kay mu bokk <laughs> ah. tout le monde veut habiter à Dakar ñëpp bëgg a dëkk Dakar. waaw ah, loolu de moom ñëpp bëgg kër Dakar. agg mm-hmm. na ci condition bu ñu leen joxe kër rek ñu jël ko. dégg la xooluñu côté ndox mi day taa. ñu doon boobu c'est habitable xooluñu benn naag dépôt mbalit xooluñu benn naag lii wala benn naag. ñun ñii de juddoo fi ñun ñii de juddoo fi yaroo fii te amaguñu dara boo mooy Thiès la yaakaar. mais Moussa. Hmm. mais Thiès c'est bien. Moussa ba nax neex Moussa xoolal. nax neex de moom baax na. <laughs> mais mais mais Moussa. Moussa billahi moi quand je suis à nax neex dama xoolal damay mel ku nekk àjjana. waaw mais c'est bien. heure pire ngay nooy y' a aucun problème. Hmm. te te le transport euh, yomb na léegi. yaa ngi waaw hmm. bu diisul trop waaw. kon nit ñi Moussa nañ jéem a dellu ci seen dëkk ya. bu dëkk Dakar sottiwut. waxuñu kenn obligatoirement da ngaa war a dellu dëkk ba mais bu dëkk Dakar bi compliqué wala mu nar laa jural ay loxaange mm-hmm. mais nañ dellu dëkk ya mm-hmm. beneen bi ci des aussi suuf si gis nga lu ci ëpp coow dégg ci suuf si mm-hmm. du Moussa Thiam du Jibril Sène tonkal yi ci kaw kese ngay dégg ñooy coow coow suuf yi waaw hectare sàngam dagg nañ ko hectare nangam ak nangam ak nangam dagg nañ ko mais Moussa jaaral ci corniche bi nga xool géej mais mais loolu est-ce que jaadu na. waaw c'est vrai parce que déjà nu ñu mosalee yëmbal euh, dagg fa ay neuf hectares donc pour les euh, neuf hectares c'était le projet c'était juste peut-être euh, pour un stade municipal mais bon. leneen li gis nañu morcelé nañ ko ay terrain yeneen ak yeneen ak yeneen. bon kanam tamit yeneen loolu seen système la xoolal fu ñuy mm-hmm. dagg. Mm-hmm. dañ naan ay armel lañ fay def wala place publique. Mm-hmm. wala hôpital. oui fekk hôpital ba du jël sax un tiers lañ soxla. dëgg la. la ca des yëpp ñu morcelé ko ay terrain. comme surfacturation surfacturation nu mu amee ci yeneen yi kon noonu la euh, sur euh, sur yokk superficie. noonu waaw Moussa li xew ci yi moo raw. waaw ah. te boo xoolee coow yi ñu ngi ciy dégg yëpp Moussa. Mm-hmm. mais ñi jege nguur gi la. oui soit mbokk mbokk dañ naan gorob président wala rakku président wala xaritu président wala nangam ak mais suuf soosu est-ce que waruñu ko jox askan wi ñoom ñu xool lañ koy def. Euh, c'est vrai que waaw loolu la eh, ci yoon ñoom tamit ñu xool lañ koy def. ba pare Moussa gars yi ñu ngi clôturer ay hectares. Mm-hmm. yoo xam ne lijjanti nañ seen i titre foncier clôturer ay hectares ci biir Ndakaaru ay nit di wut fuñ dëkk amuñu ko. waaw chaque jour mm-hmm. chaque jour. Mm-hmm. milliardaire romb la jëm Touba mbaa Tivaouane mbaa Yoff. bàyyi ay hectares Moussa gars yi nañ xam ne suuf sii. loo ci accaparé accaparé ëllëg mënoo occupé lu ëpp deux mètres carrés kon na gars yi dellu si seen xalaat ngir yàlla. Mhm. te xam ne lépp fi lañ koy baax. la te ñu dimbalante. Mhm. dimbalante mënul passé nga yor ay hectare gis ay say say dëkkandoo. Mhm. am problème mu pantare nga ne leen kaay leen ma jox leen fu ngeen dëkk comme ni Ablaye Dia def seen seen ko. c'est un acte vraiment magnifique. waaw ñëpp di rafetlu. waaw kooku de moom. bu am alal loolu lañ koy doyee Moussa. merci beaucoup. jërëjëf waaw kon nag euh, mais je pense que nii léegi ñu déclassé pour euh, askan wi la <laughs> yaakaar nañ si yaakaar bu baax a baax waaw gars yi nee nañ waa géej waaye dañ ko topp ba leer asalaamaaleykum. Alaaji Moussa Thiam. waaw ñu ngi lay nuyu. waaw Moussa naa la lool. ñoo raw ñoo la raw. man de am na lu bëri lu ma ci raw. dëgg la. waaye xam naa sant yàlla rek. ñu ngi lay fay. yëkkati kàddu bi tuuti bu baax maa ngi lay nuyu di hmm. mahal bëgg ceeb. ngi fi. waaw waaw tey kay teel naa ñëw. <laughs> Ah, waaw. ah émission bi dafa mel ne affaire environnement. dëgg la dëgg la dëgg la waaw <laughs> DG ñu ngi lay nuyu mooy nuyu noonu. ah. ma directeur mooy nuyu noonu. <laughs> Ah, waaw. ceebu waalo mooy nuyoo bu ay war ceebu waalo. Mhm. moo tax mon frère ma ne. Mhm. man nag j'aurais aimé benn environnementaliste bu mel ne Ali Aydara ñu invité woon ko. waaw incha allah lii parce fu ñuy waxee environnement wala ñuy wax ci affaire pêche bi. Mhm. sama xel lay dem ci Ali Aydara. dëgg la. ndax liggéey bu rafet bi mu fi liggéey te malheureusement. ay lobby mu ko fexeex ba gouvernement mu ko jëlee. dëgg la heure bu ñu waxee ci environnement wala pêche bi rek. il faut mu citer ko. waaw liggéey bi fi def. la ndax daggum garab bii ngay wax Moussa Thiam. Mm-hmm. pour la destruction de la forêt daf ci defoon liggéey bu rëy. bu mm-hmm. ko fi ministre. Mm-hmm. ñaata ñaata exploitant forestier. da fi arrêté lu. ñaata camion la la la la la bloqué loon fi au niveau ci poste Kaffrine bi. yii yëpp ay bois d'artisanat yii yëpp ay këriñ yii yëpp ay yeneen ak yeneen yu demee noonu. mu ne leen bépp exploitant boo xamante ni amulatuloo permis wala sa permis expiré expiré. duutoo dagg daggum garab. ñu bloqué ko fii coow li am fi lu rëy. Mhm. ba mu tomboo benn nawet boo xamante ni gars yi ne woon dañuy grève di duutuñu Sénégal dana manqué këriñ. Mhm. ndax dañuy grève mu duggaat ci rajo bi ne ne leen gars yi dañ leen di napp gréewuñ. Mhm. bu tawee ba taw ba àll bi tooy. camion yi du mën a am accès ci biir àll bi. ndax dañuy ngiroo. dañuy paam. waaye tant que mi ngi fi en tant que ministre kenn duuti fi dagg garab cest à ñi amoon euh, permis. 2009 2010 2011 ñoo ñëpp te renouvelé wuñ ko. Mhm. daf daf daf daf daf daf leen ko interdire. Mhm. parce que amoon na ci biir ñoo xamante ne les exploitants faux produit la lañ leen tuddal dañ doon am permis ba pare daan ko jaayaat à 700000 francs. Mhm. maa ngi ko dégluwoon ci benn émission ataaya bu amoon wal fajri. loolu bu fekkee dañ bëgg defal environnement yu mel noonu. wala liggéeykat yu mel noonu dañ leen war a waaye pratique dañ ko war a ci réew mi. dëgg dégg nga maam feu de brousse da nga koo fàtte. oui ci la waaw. Mhm. feu de brousse la mhm. ñaata la yàq tapis herbacé bi daanaka yàqoon. yàqul dafa créé benn bekkoor. Mhm. ba ñu yi du ñuy mujj dem yéeg ci garab yi jël seen gor jël seen jaasi di dagg garab yi muy wàcc. di ko xam nga élagage des arbres maanaam ni ñuy daggee garab. garab du n'importe comment nga ko war a daggee. dëgg la waaw. loolu nañ ci bàyyi xel. dëgg la. boo ci boolee nag réserve yi ñu am boo jëlee mbaaw réserve superficie bi amoon bi mu koy créé ak superficie bi am léegi est-ce que benn boo ko déedéet wàññeeku na mm-hmm. parce que da ko agressé mm-hmm. nga dem ci filago yi la même chose nga dem mm-hmm. parc aan la même chose boo ci boolee nag comme li bee da aan bee dégg nga maam déchets yi ni sànni ci géej yee pollution atmosphérique beeg dégg nga maam la polition de loolu yëpp Moussa vraiment moo tax tout le temps on assiste à un réchauffement climatique bokk na ci ndax garab dafa am lu muy joué ci ci ci réew mi léegi nag li ma jaaxal mooy wax doon nañ fi wax la grande muraille verte. oui. pour affaire reboisement bi. Mm-hmm. fan lañ ci toll. waaw. Mm-hmm. loolu sax defe naa Ali Aïdar. mu ngi ci waaw amoon xamante ni. Mm-hmm. amoon ko fi nommé la waaw moom la. bu yàggul bii am na journée bu doon nommé. ci bu doon célébré xam ci affaire reboisement arbre yeeg yu demee. de l'arbre. waaw. kon nag état bi am na ci part de responsabilité mais askan wi aussi am nañ ci part de responsabilité. dëgg la. alxuraan ne saxaral fasaare fil bari wal baxri bi maa kasabat ay dinaas. Mhm. nee na lépp lu yàq ci jaww jeeg jéeri jeeg loxol aadama loxol aadama. Euh, moom dëgg la. kon ñu nit ñi nekk ci àll bi di yor seen cigarette yi di mego yi. di mhm. taal di <laughs> waaw muy uh-huh. créé muy créé ay. feu de brousse ay incendie ay mhm. ak bàyyi maanaam éleveur maanaam euh, nu mu éleveurs yi nekk ci àll bi di sàmm sam yi nekk ci àll bi. Mhm. seen i jaas yi nu leen neexee ñu dëggee ko garab. Mhm. nañ ci bàyyi xel ñiy wut këriñ. waaw ak ñiy wut bant ak ni ñuy ni ni ni mhm. ci bàyyi xel. dëgg la un code de l' environnement. absolument un ko mettre ça en œuvre. ji bu jeex tàkk. jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh bi kon nag ci intervention boobu am na solo trop euh, ñu jël keneen ci ligne bi très rapidement salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax na def. waaw ñu ngi lay dellu ziar. waaw kooku day euh, <laughs> dog na si dafa rëcc ci ñu xaar keneen très rapidement ci 88 628 98 98 bu nekkee am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy dalal ci waxtaan wi xam naa nag euh, rek moo ñu dese waaw ci fànn ñu mën a jël ñaar ba ñetti nit ci waxtaan wi nga xam ne moom la ñu indi tey jëmale ko ci nañuy yore alam bi euh, dëgg la am ñu jàpp ni daal war nañoo gën a mën a ñoŋal waaye tamit liggéey bi du liggéeyu nguur rek ñëpp ñëpp nit war nañ see dugal seen loxo li jëm ci wàllu nu ñu organiser cadre de vie bi yooyu yëpp ak yëpp a ngi ca kan nag euh, mu doon loo xam ni daanaka daal mën nañ see taxaw surtout jamono ji nga xam dañoo toll ci wàllu nawet ak nu ñu war a yenn dése solides yi bala ñoo dugg tamit ci caniveau yeeg yooyu ak yooyu yëpp tamit bokk na ci loo xam ni daanaka daal war nañ see mën a gën a góor góorgóorlu ci fànn woowule euh, bu nekkee am na si ligne bi ñu daal di koy dalal très rapidement benn ba ñaar rek daal di yëkkati jotaay bi asalaamaaleykum allo salaamaaleykum. Alaaji Moussa. waaw ñu ngi lay ziar sëñ Lamp. man la Lamp Fall. bisimilah maa ngi nuyu Grand Boy Diaw ak euh, Baol Baol. Mm-hmm. di wax encore une fois que ne thème bi am na solo. Mm-hmm. muy environnement bi nga xamante ne ñu ngi koy waxtaane oui euh, nawet bi nga xam ne aussi ñu ngi ciy jub si. oui. Euh, xam nga tubaab bi dañuy faral di wax ne un corps sain un esprit sain. dans un corps sain. Mm-hmm. man damay dolli aussi ne dans un environnement sain. environnement bi bu ñu bëggee vraiment mu mel ni mu war a mel. Mhm. mooy que ku ci nekk da nga war a xam. waaw li nga xamante ne importance am na ko principalement ci garab. dëgg la ndax garab. Mhm. benn dina faciliter taw ñëw. Mhm. garab dina protéger avancée de la mer. dëgg la garab dina permettre aussi nit ñi li nga xamante ne soxla nañ ko principalement la journée muy oxygène. oxygène bi. day jóge ci ci garab yi. kon loolu lu ñu lu ñu war a topp toll. Hmm. sauf le le point bi nga xamante ni vraiment man euh, ça me tient tellement à cœur. Hmm. mooy euh, band vert bi nga xam ne nekkoon na ci corniche géejawaay bi. oui. waaw dama gis ne foofu ñun bi ñu nekk ay tuut tànk foofu lañ daan dem. dëgg la di fa di fa foyee. Hmm. di fa ataaya ak di fa di fa jàng mbirum góor. léegi gis naa ne àll boobu yëpp lu ci ëpp. dëgg la eh, cent la quatre-vingt-dix yëpp. daaneel nañ ko dagg ko ay kër. te loolu foog naa ne bu fekkoon ne état nanguwul loolu du am. Mhm. kon état foofu dinaa ko indexé. ne ko li nga xamante ne fekk nañ ko fi ci lu baax ci alam bi. Mhm. ak ci euh, vraiment décor doomu alam yi mën ci dund. Mhm. loolu buñ ko sauvegarder wul je crois que ne waruñu ko yàq. jox ko une portion de personnes yoo xam ne nii dañ koy jariño te kooku bu boobaa ci jëmmam la wala moog ay mbokkam. te li fa nekkoon mën naa ne àdduna bi yëpp Sénégal yëpp mënoon nañ ci jariñu. dëgg bu loolu jàllee aussi dinaa def benn proposition. waay xam nga fi ñu toll ñu ngi am ba nit ñi dañuy tabax seen kër. Hmm. mais Dakar moom ku ko xam. Hmm. xam ne euh, cent cinquante mètres carrés boo fa bëggee def garab ci biir sax. waaw daanaka def fa néeg da lay gënal. dëgg mais nag ku ci ne am nga buntu kër. Hmm. man doon naa suggérer maanaam boole ci waa CNO. Euh, ak état bi. Ah, mu nekk benn partenariat tripartite boo xam ne ki nga xam ne moom moom borom kër gi. Mhm. Euh, état bi ak Sen'Eau. Mhm. képp koo xam ne nii jëmbat na lu mat ñeenti garab. dundu mhm. këram waaw. di di ko mën di arrosé. convenablement ñu defal ko dispense ci facture bi mu war a fay. waaw ah, loolu xalaat bi bu dee bu dee dix mille. Mhm. dina ko fayal sept mhm. bu boobaa dina encouragé nit ñi. Mhm. am culture. waaw maanaam euh, vraiment reverdir euh, seen. seen seen environnement seen cadre de vie voilà. am na solo bu loolu jàllee aussi. am na ci ay espace yoo xam ne espace public yu nekk ci biir koñ yi. yu demee ni ay maris ak ay côté foire yu demee noonu. Mhm. da jekki jékki rek maanaam loolu dañ ko defoon espace public. waaw peut-être dafa verdure ou bien espace de jeu. Mhm. dañuy jékki-jékki rek ñu daal di koy morcelé jaay. dëgg la te loolu état état aussi munu ci. Mhm. munu ci maanaam ñàkk am part de responsabilité. dëgg la dëgg la. maris yi bi nga xam ne nii booy jaar autoroute bi. foofu ñun ñu ngi ko tuddee bande d' waaw bande d'Aouzou pourquoi parce que c'est un euh, espace boo xam ne dafa litigieux. Mhm. léegi nag foofu espace la woon boo xam dañ ko defoon public mais léegi fi ñu toll nii ñu ngi commencé di ko bëgg di morcelé. est-ce que nag population ñu ngi bañ. parce uh-huh. foofu ñun fi ñu bëgg a jëmbat ay garab. Mhm. Ah, ku bëgg a ñëw ne da koy morcelé bu boobaa foog naa bala nga koy def. Mhm. nga jëflante ak ñun. donc di wax daal ne maanaam environnement lu am solo la. léegi nag environnement boobu CNO am na ci responsabilité xam nga boo jëmbatee garab te amoo loo ko roose est-ce que dina développé. déedéet déedéet. te nit ki bu amul lu mu naan du fa la roose. te léegi loi la parce que léegi balaa ñu sax permis sa maanaam euh, say documents au niveau du truc dañ ci boole waale pour que nga euh, si si si kii construction bi dañ ci boole waale pour jëmbat garab ci la bokk. voilà très bien. léegi nag mm. dafa amoon benn euh, demande bu ñu doon wax peut-être c'est mm-hmm. da ngay def ay ay jardinage mm-hmm. boo xam ne nii la ngay fay du am solo. Mm-hmm. mais loolu pour nga jot ci compteur bu mel noonu. Mm-hmm. c'est léegi nag lii ma lay wax nii dama la koy étayel ak benn exemple bu am solo. allez-y gis nga fi ñu nekk parc Lambaye ñun bu ñu bëggee jëmbat ay garab. lu mm-hmm. ñu ko arrosé parce que ñun euh, depuis le onze mars dernier. fay nañu une facture de un million trois cent pour pour ñu indi implanter ñu compteur boobu ba léegi indi lu ñu compteur comme ñun tey bu ñu amoon ay garab du ñu am lu ñu ko roosee dëgg wax nañ leen bu dégg bëccëg suba ak ngoon dañuy wax tey suba tey suba loolu mhm. aussi c'était bien ñu interpeller vraiment waa Sen'Eau mhm. que ne waa Pakulambaay mhm. am nañu ay garab mais amuñu lu ñu ko roosee ndax fay nañu seen xaalis seen poche bopp un plus d' un million trois cent ñu ngi xaar te amuñu benn dëgg jërëjëf jërëjëf jërëjëf leen di sant Moussa di leen gërëm. jërëjëf di xam ne li ngeen di bay ci réew mi daal yàlla ne suñu borom fay leen. amiin amiin jërëjëf ñu ngi nuyu laa Pàcc ba yëpp. voilà kon mbokk yi xam naa nag fi la ñu yëkkatee jotaay bi waxtu yi jot na euh, donc euh, di leen dig daje incha ci beneen waxtaan waaye waxtaan li jëm ci alam bi dinañ ko gën a yaatal ndaxte tamit euh, bis bu nee lu ñu war a waxtaanee la ndaxte chaque jour lu ñuy dund la ñuy jànkonteel la ci li jëm ci wàllu cadre vie ak agression yëpp ba ci sax ñëpp nag ñi nga xam ne daanaka ñoo ngi ànd ak ñun sur seen rajo Sud FM 98 point 5 di leen dig daje incha allah si beneen waxtaan ci FM jërë ngeen jëf si ànd bi ngeen ànd ak seen rajo di gërëm bu baax pharmacie nationale d' approvisionnement ak ñi nga xam ni doon wax ñu leen baaxee émission bi la